Moustapha kàddu gaa nga ko Ramatoulaye mbokk yi dal leen ak jàmm ci diine ak jamono mission d'observation bu Union européenne di fàttali ne mission d'observation mooy Ramatoulaye su élection amee dafa am ay kuréel yu bari ci àdduna bi yoo xam ne dañuy def ay délégation yu ñëw ne ci réew mi di xool élection yi ni muy tëddee Sénégal gi bari na fi ñoo xam ne dañuy dem di bokk ci ay mission d'observation élection am ci yeneen réew su élection yi jàlle nag dañuy def rapport rapport boobu la Union européenne di doog a génnee lam ca wax liñ ci njëkk tànn waxtaane ko tey mooy euh, parrainage Mame Birame Wathie bokk nga ci ñi nga xam ne jot ngaa jàng rapport bi comme ni ko journaliste yi bari yëngu ci wàllu politique jàngee ana lan la la jàngal rapport Union européenne boobu la waaw Moustapha ni nga ko waxee noonu la euh, buy am bu ñu bàyyi rek waa dëkk ba ñu organiser ko ci seen bopp dañuy woo ñeneen ñoo xamante ne nii yeneen dëkk la ñuy jóge wala yeneen organisation ñu ñu yónnee ay ndaw pour ñu nekk ay seede maanaam mun a xool li nga xamante ni moo xew ci élection yi. Mhm. élection présidentielle bi nag bu mu amee mission union euh, union européenne yónnee na am mission mu observer élection yi. yaakaar naa ne rapport bu mu génnee début de semaine nekkul premier rapport bu mu njëkk a génne parce que toujours juste après élection yi bu ñu fàttali ko am na benn rapport bu mu génne woon mais c'était plus pour wax ak médias yi nu ñu couvriree élection présidentielle bi mhm. donc rapport bii nga xamante ni moom la ñu génne en début de semaine c'était plus large maanaam li nga xamante ni gis nañ ko maanaam ba euh, campagne bi dooree ba bii ñuy proclamer élection yi li nga xamante ni yëpp ñoom jot nañu ko gis loolu la ñu bind def ko ci ab rapport jëbal ko euh, euh, journaliste yeeg askan bi mhm. léegi euh, li ma jaaxal mooy rapport bi recommandation yi si nekk bari na bari na parce que wax nañu ne élection élection bi ça s'est déroulé dans de bon condition mhm. wax nañu ko mais li si gën a intéressé nu mu turati ñi nga xamante ni ñooñu jiite dafa mel ne parrainage bi la te li tax mu xaw leen a déranger mooy li ci Union européenne wax te la yaakaar naa ne loolu du lu bees sénégalais ci ginnaaw bi ñuy teg système de parrainage boobu am na lu bëri lu ñu ci waxoon. Mhm. te yaakaar naa ne recommandation Moustapha nekkul ne defal lii la par force maanaam su may su may joxee exemple day mel ne exemple bu terre à ah, nga romb 15 euh, euh, heures jot naaj bi mu ngi tàng jër nga romb benn xale muy football ci biti. Mhm. nga ne ko te ngaa soli daal balaa laa xodd bu dee la jam mhm. xam nga xale bu të rek moo lay topp di naan la lan moo tax nga naan ma demal soli daal mhm. gan gannaaw yow digal nga ko yaa ngi dem sa yoon moom mu sol dàll ak mu ñàkk sol dàll loolu responsabilité am la mais dañu gis ne gouvernement bi ñoom bi union européenne waxee loolu mhm. te tax ñoom boo seetloo seen biir wax dëgg dëgg dëgg waxuñu ne na Sénégal euh, maanaam dindi parrainage dañu ne système bi war nañu woote waxtaan pour ñu xool ndax war nañ ko téye wala waruñu ko téye. Mhm. te man dama jàpp ne ñoom bu ñu demee ba ne élection locale yi di ñëw waruñu ko def man ci sama xalaat dañuy bañ a wax présidentielle bi waruñu ko woon a def moo tax ñu wax loolu parce que argument yi nga xamante ni moom la ñu avancé pour wax ne waruñu ko def ci élection locale yi di ñëw loolu moo xew ci élection présidentielle. parce que nee nañ local yi bu ñu ko defee dina poser un problème politique et organisationnel. très bien te loolu xew na ci présidentielle bi ñëpp gis nañu ko donc ñoom peut-être bañ a discréditer présidentielle bi passé moo tax ñu def benn nu mu tuddati benn euh, lancer les perspectives. Mhm. pour wax ne élection locale yi nii nit ñi war nañu mën a waxtaan xool ndax dañuy téye parrainage bi ou pas parce que tamit ñu wax ko ak ñu ñaax koo wax. ñoom boo xoolee euh, réaction euh, ku mel ne euh, madame Aminata Touré. ak ku mel ne le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye dina ñëw léegi très bien c' est comme si ñoom dañu dañu jàpp ne Sénégal nekkul pays boo xamante ni pays bu indépendant dafa mel ne benn province française hmm. yu par exemple. yu ñu ñoo pare war a ñëw di wax lu ñuy defal lu ñuy bàyyi. Oh, très bien ñoom lan la ko jàppee. alors que Moustapha am na loo xamante ni tamit jar na fàttali. Hmm. parce que avant ñuy dem élection dañu def audit du fichier électoral. mais audit boobu ñan ñoo ko financé du union européenne ba ñu financé audit boobu mais les naa du pouvoir ñoom dañu kontaanoon ci wax ni. waxuñu woon ne ingérence très bien fichier bi leer na parce que audité nañ ko mais yegguñu woon ci union européenne moo ñu jox xaalis bu ñu ko audité. d'accord donc maanaam yow bu ñu la joxee moyens yi. nga nga nga nga sa fichier. Mhm. tey jii di nga taxaw ne bul ma digal day day xaw a doy waar. d' accord alors Modou Fall mu Mame Birame wax na ko ci biir waxam dafa mel ne euh, le rapport de l' Union européenne li mu ñu wax ci parrainage bi yëpp daanaka lu ñu xamoon la muy les insuffisances yi nga xam ne moo nekk ci loi boobu la. Euh, mën nañu ñu ma bokkal plateau bi Mame Birame moom moo bokk dëkk Diourbel. Mhm. donc ak le grand As Babacar ak le grand Youssou Dao. donc euh, da nga posé question bu am solo. parce que parrainage bi effectivement boo xoolee élection présidentielle bi ñu jógee moom moo nekkoon euh, élément bi ci ëppoon problème donc te boo xoolee aussi bi rapport bi génnee effectivement nit ñi li leen ci gën a intéressé parrainage bi la te jàpp nañ ñi ñenn ñi jàpp nañ ñi parenage bi moo saboté élection présidentielle yu weesu mm. non man foofu li ma fay wax mooy euh, j'ai j'ai été toujours contre le parrainage man je l'ai je l'ai je l'ai dit euh, je le maintiens aussi parce que ci forme bi mu demee ah mooy mm-hmm. parrainage citoyen bi ñuy mettre dans un même sac les partis politiques et les candidats les indépendants ba pare élargir ko à tout type d'élection déjà kon gis nañ ni aspect bi ñu wax élargir à tout type d'élection rek bokk na ci li nga xamante ni nii euh, rapport Union européenne bi mettre en évidence parce que dafa insister ci élection locale yi ñu jëm cité ko nommément te je pense que rapport boo koy bind di évaluer élection présidentielle du février 2019 da nga waroon a contenter seulement ci yemale ko foofu wala nga projeté ci yeneen élection yu ñëw euh, ci yeneen ultérieurement quoi mais boo ciblé benn élection alors que am na yeneen législative yu ñëw nga ciblé élection local daan ni dana indi jafe-jafe kooku aussi beneen beneen euh, manque de rigueur la quoi manque de rigueur la ci ni ñu rédiger rapport bi parce que li ma jàpp mooy dafa am loo xamante ni nii c'est comme si ça a été dicté dafa am élément yoo xamante ni nii dafa mel ni dañ doon profité ci rapport bi pour jàllale ko hmm. li ci des lépp ci rapport bi donc nit ñi wax nañ ko fi waxati ko et cetera et cetera maintenant pourquoi ñu insister ci parrainage bi mhm. effectivement parce que euh, parrainage euh, li mu boole ci ay éléments ñoo bari voilà parce que déjà il fallait pour ñu euh, lancer ko il fallait modifier la constitution déjà loolu benn élément la après bi ñu modifier constitution bi ñu ñëw modifier code électoral bi ñu modifier code électoral ñu ñëw créer benn arrêté arrêté ministériel boo xamante ni ci la ñu sukkandiku pour wax naka la ñuy defee parrainage bi mooy les fiches de collecte ak yooyu yëpp ñu génn ko ci ba pare délimiter aussi collecte bi nan lay demee donc man nag li ma ci gën a intéressé surtout tey ci débat bi mooy toujours débat bi mhm. boo xoolee même Union européenne foofu moom condamné naa leen fa parce que amul fenn fu ñu sible les citoyens mooy les parrains sénégalais yi nga xamante ne nii dañoo demoon ci ñoom mhm. récupérer seen seen ay information d' identification pour mën a am parrainage ñoom fan lañ situé ci rapport bi boo xoolee donc jàngat bu baax y a quelque fu ñuy wax ne euh, citoyen yu accepté nañ ne am na ci ñoo xam ne seen parrainage dañ ko affaire dañ ko jaay waaw voilà foofu ci ñëw léegi dinañ ko jaay mais feneen fi globalement mooy mhm. euh, il faut nit ñi euh, globaliser les lois parce que y a la loi portant données à caractère personnel dinañ ci ñëw mais surtout ñu jële ko ci angle boobu mhm. xam ni parrainage bi am na yeneen problème yoo xamante ne souligné ne ko mais aussi da nga ni mhm. maam Birame dafa wax ni Euh, pour ñu corriger ko mais am na fu ñuy wax abroger la loi boo xoolee rapport bi xam naa dinañ ci ñëwaat ci kanam. abroger mooy dindi complètement sànni voilà alors As Babacar mu mel ne euh, parrainage bi suñu dégloo bu baax waa Union européenne am na lecture bu ci maam Bira wax sànq ne mënuñu wax ne présidentielle bi baaxul parce que kon nañ koy décrédibiliser mais su ñu yemee rek ci niñ ko bindee texte bi dafa mel ne dañ naan euh, mën nañ accepter ne baax na pour la présidentielle mais pour les locales baaxul est-ce que indi amul contradiction ci rapport boobu la. jërëjëf Moustapha. Mm-hmm. maa ngi yëkkatiwaat ay kàddu nuyoo di ko jëmale si sama rakk Modou n'est-ce pas ak le grand journaliste ak suma frère euh, Youssou Dawo di la nuyu tamit di di wax ni man li ma bëgg jëkk préciser mooy léegi bi ngay introduire rek yaa ngi wax ni la da nga insister ci parrainage bi maanaam boo dégloo médias yi ni ñuy waxee sax dafa mel ni rapport Union européenne bi dafa jël vraiment la part belle mu def ko ci parrainage bi alors que man bi ma ko gëstoo gis naa ni en vérité ci 77 pages yi ñaar fukki recommandation ak juróom-benn ñu ngi ci te ñaari recommandation dong nag ñoo wax ci parrainage mooy recommandation juróom-ñaareel bi mhm. ak recommandation juróom-ñetteel bi mais à part loolu ñaar fukki recommandation ak juróom-benn yi dañ ko def ci fukki bloc yi nga xam ne bloc boo ci jël rek dafa am solo participation des femmes participation des arts et cetera cetera mhm. waaye comme ci parrainage bi lañu ñu commencé. Waaw. Euh, li ma ci mën a wax mooy man bi ma ko gëstoo gis naa ni recommandation numéro 7 bi jaar na yoon mel na ni comme ni ko sa nattango bi waxee léegi romb ab xale mu nekk cib naaj nga ne ko eh moytul ndax sibiru bi demal sa kër boobu gisuma ci benn problème parce que en vérité foofu dañu wax ni war nañu mën a xoolaat nan la ñuy def pour jubbanti mbir mi waaye li ci xaw a heurté nag le sénégalais que je suis. Mhm. mooy boo demee ci quand même recommandation numéro 8 bi. boo ko xoolee bu baax am na fu ñuy waxee ni la mission de l'Union européenne recommande d'abandonner le parrainage citoyen pour les citoy pour les élections locales dans les plus brefs délais. ak précision c'est dans le texte ah. dans les plus brefs délais. man nag loolu man en tant que sénégalais mënuma koo nangu dëgg la nag dëgg la nag euh, bukki moom bu bu bu yebee waxambaane rek ca doxin ba ba ku dekk ca àll ba rek du ñu tuumaal def leen li def leen mais lii mënuñu ko accepter. moo tax j'ai pour une fois mhm. euh, mon ami euh, Aliou Nguy Ndiaye bi ma ko déggee mu fëgg dënnam nee naa lii ànd naa ci moom parce que wax dëgg nag war na ñoo mën a diggal waaye waruñu ñoo mën a digal nag ba pare dinañu def ay injection te it nag li ci xaw a doy waar mooy liñ fi wax yëpp nag ñun xam nañ ko ba pare nag xam nañ ko euh, moo tax c'est quand même dommage hmm. quand l'opposition la coalition Idy 2019 bi ñu génnee le rapport public avec 35 recommandations pourquoi les plateaux sénégalais woote wuñu autour de ça parce que le ministère a, a répondu un bon document aussi de réponse mais je pense que loolu waroon na ma nekk débat mhm. ñu teg ko ci taabal ji bu doon débat boobu am na da ngay gis ne ñaar fukki recommandation ak juróom benn yi nga xam ne ñoo nekk ci parrainage bi ci ci ci ci rapport bi yëpp presque dafa nekk ci trente cinq recommandation yi nga xam ni trente neuf recommandations yi nga xam moom la ñu wax mais enfin mhm. gis naa ni tamit kersa am nañu ko maanaam le pouvoir am na kersa kersa bi mooy liñ leen doon wax ni lii baaxul ñu yaakaaroon te nii wax dëgg bañu ñu parrainage bi en tant que tel mais dañu waxoon ni c'est une loi mal pensée ba pare les citoyens n'étaient pas bien préparés par rapport à sa et que war nañ cee mën a waxtaan ñu bañ def forcing def ci lañ ca war a def léegi nag xam nañu ni moi je pense même que le pouvoir dafay prôner le le faux pour avoir le vrai parce que tey ji le parrainage dafa nekk benn dëkk bu nekk ci seen tànk bi nga xam ne tey jii bu fekkonte ne opposition bi dañoo courage na bara ni non c'est bon nañ ko def problème daal di am problème organisation bu doy waar parce que xam ngeen il y cinq cent cinquante de communes au Sénégal commune ba ca nekk au moins dina am dix listes wala cinq listes donte ni xamuñu ñëpp war a wuti ay parrain mais du loolu mais fan nañ koy gëstoo tey jii le conseil constitutionnel était incapable incapable véritablement de liggéey ba mu war a liggéey parrainage bi ñu gis aussi di un million quatre cent mille parrains yi ñu déposé woon mais soixante pour cent yi cinquante huit pour cent yi dañ ko invalidé ca kaw cinquante huit pour cent yi dañ ko invalidé huit cent vingt deux mille et poussière mhm. tey ji bu ñu ko wàccee au niveau des cinq cent cinquante deux communes ba pare ñu ni préfecture yi ak sous préfecture yi ñu ca la koy euh, gëstu foofu la nekk te ñu xam ni dans les communes rapport de corps à corps la préfet bi sous préfet bi day naanu attaaya ci kaw poli ci kër politicien bi politicien bi dem ci moom yenn saa yi mu moom yenn saa yi du jubóog moom maanaam c'est un c'est une bombe explosive bi nga xam ni tey jii opposition bu naroon saboté dëgg dana non non c'est pare naa nañ ko bàyyi noonu bu def mais nag euh, war nañ ci waxtaan te yàlla def xam ne daañ ci wax ñu ngi ciy waxtaan ndax ñun li ñu soxal rek mooy li nga xam ni mooy jëmale réew mi kanam te comme actuellement Sénégal ak adduna bi yëpp xam nañu lañ doon wax dëgg la et que le parrainage loi bi nga xam ni fokk ñu xool ko da nga jàpp finalement que ni union européenne def lu dul dëggal li ngeen doon wax yéen depuis c'est clair Modou wax na ko léegi mm. dëgg moo wóor bon quel que soit <laughs> quel soit ba tax kontaan naa ci ni mu introduire mu ngi woon ci beneen côté bi di wax li muy wax mu ngi ci boor bi mu ngi waxani li mu doon wax donc dëgg moo wóor non parenage bi jaarul yoon ci lu baree bare te buñ ñu mayee bu fekkee looloy débat bi dañ ko def benn par benn parce que nous avons été acteurs mhm. acteurs au centre de ça benn benn bi nga xam ni Sénégal yi daañu xam ni wax dëgg yàlla jaarul yoon sans problème noonu lay demee sax Youssou Daw yéen euh, li am solo ci seen teewaay moo di ne li Union européenne def yéen bokkoon na ci li ngeen def maanaam di observer di xool élection yi euh, processus bi fa mu tàmbalee ba fi mu ba fi mu aboutir est-ce que d'accord nga ak ji Union européenne wax yëpp ci rapport am boobu la waaw euh, maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ràññee ci Modou ak Babacar parce que ñoom ñaar ñi tey fii ñu toog seen place la ñu bokk nañ ci commission cellulaire bi ñuy toog di liggéey fas yéene saytu di lépp ba defar ko ëllëg kon nag fii ñu toog tey seen place la parce que am nañu ko xam-xam ci li ñuy waxtaanee tamit naa ko seede euh, Moustapha Union européenne man bi ma gisee seen rapport bi dama ne dañoo teel a cëppeelu ci tere te ñu woon wax lii parrainage bii ñu weesu te ñun ñëpp ñu jaar fa lu ci ayib lees ca war defaraat lu ciy problème ba ma doog a conclure waaye waxoo ca te fekke ko bëgg a wax ci parrainage bu egg seegul ah pour man ah, loolu nag problème la parce que waxuñu euh, exactement ne lii ak ak lii mooy problème parrainage bii ñu jógee mhm. am na jafe-jafe man mi observateur laa fa woon nekkoon naa constitut ci con ñi nga xam ne ci observateur yi ñu tànnoon ñuy teewee wóor na Babacar mi parenage dañoo war a xool d'abord ca départ ba lu tax ñuy parenage parrainage dañu ne woon ci li ñu wax dañoo bëgg seet nu ñu rationaliser les candidatures ñu indi parrainage waaye nag parrainage ba dañ ko waxtaanewul nañ ko war a waxtaan dañ koo gaawatu lool parce que parrainage en lui-même ah bonut xam na suñ ko seetee fañ ko war a jaaralee waxtaane ko acteur yi waxtaane ko ba turee ci formule mën na baax ba gisee parrainage bii ñu defoon ci présidentiel am ay jafe-jafe dañ ko waxtaanewut ni ko Babacar waxee plus de un million quatre cent et quelques koo xam ne ki tey bu ñu ne Moustapha Diop daal de naissance nii de naissance lépp Moustapha bi ñu jëm ci tëb ci aawale rek bokkutu te yow indi nga naturellement sa carte d'identité jox ko ki nga wóolu ne ko pare na la ñu génne ko waroon nañ ko seetaat humaniser wuñu ko dëgg la conseil constitutionnel dañ naan la man damaa programmé na doon fichier électoral xam ne acteurs yëpp ànd nañ ci fichier bu conseil dañ ko ko jox rek lu ca ne xamuñu ko moo tax ma ne parrainage dañ koo gàttu mënoon nañ koo waxtaane ba acteurs yu juboo ne nii lañ koy defee parce que da xool sur vingt sept candidats mhm. cinq lañ ci dëglu sept ci baax ñu dàq ñaar xam ne kooku nag jaaduwul am na fi ñoo xam ne ñi am na ñu wóor na ma ne am nañu un nombre de parrain yu baax ñoo xam ne ñi de bonne foi la ñu li seen carte mais par des erreurs techniques de saisie ou de codage ñu génne leen loolu yëpp xam nga suñ ko waxtaanee donc li rapport bi di wax ni ay réalité la yoo xam ne gis ngeen ko bi ngeen nekkee euh, ci conseil constitutionnel ñuy mm-hmm. valider les candidatures bon loolu donc loolu am na fa léegi nag foofu la union européenne waroon a départ parce que euh, union euh, élection locale man damaa jàpp ne su fekkee dañu bëgg a rationaliser candidat tey lu mel ni parrainage mën na fa baax wala bu fekkee ne parrainage bëgg nañ ko fi dindi nañ wax leneen lu ñu fay proposer parce que boo dindee parrainage te di foofu leneen mën naa gën a parce que caution ngi fi parrainage bi loolu lépp nag waxtaan la rek bu fekkee ne parrainage man mënut a ci niveau local yi nañ ko waxtaanee seet yan logiciel moo fa baax seet nu ñu koy defee seet centage bu ñuy def et cetera parce que am na commune yoo xam ne yii boo leen laajee y a de petites communes au Sénégal yoo xam ne yii boo fa laajee Modou Fall da koy dem ba fa cinquante personnes jaaxal ko et cetera donc réalité yi dañ ko war a xool parrainage nag su fekkee ne dañ ciy jublu rek lu rationaliser candidature war nañ koo toog mën a waxtaanee bu dee parrainage rek fi ne ci loo xam ne lii war nañ ko waxtaanee ñu def ko buñ mënee indi leen ñu def ko waaye loo ci mën da gis waxtaanee ko ba am ci consensus yu acteurs yi yëpp ànd dara gënu ko loolu nag moom la ñu ñàkkoon ci présidentielle mooy indi lu bari d'accord alors Mame euh, taxaw ci lenn mooy bi mbir mi amee rek la réaction du pouvoir d'abord le ministre de l'intérieur yi nga xam ne c'est le maître d'œuvre des élections quand même euh, wax na ci Euh, Aminata Touré président du de la présidente du conseil économique social et environnemental wax na ci mais ci seen biir wax ñoom ñëpp dafa mel ne dañuy reprocher Union européenne mu wax ci mbirum Sénégal est-ce que mën nañ wax ne y a su fekkee ne c'est une mission d'observation boo xam ne justement observer def rapport mooy liggéeyam. waaw tout à fait mais de toutes les façons xam nga man je me dis que euh, dès le début rek euh, euh, ñoom gën a xam ba wax ji peut-être pour que ñenn ñu bëri ñuy wax ci pétrole bi xaw a ñëw tamit ci côté euh, rapport Union européenne contre feu mm-hmm. n'est-ce pas parce que boo seetloo effectivement euh, kii mu ngi koy doyen mu ngi koy wax léegi recommandation point yi ñu wax yëpp recommandation lañ ko tuddee mm-hmm. donc recommandation amul benn benn benn benn yoon bu ñu la ci waxee ne da ko war a def par force maanaam yéen yéenay toog ngeen xalaat xool ndax da ngeen koy nu mu durate li ñu leen wax parce que tamit maa ngi dégg sànq ñu ne ñoom dañu dañu def juste ay observation dañu wax juste ne nañu bàyyi système de parrainage mais waxuñu lan mooy problème système bi pourtant wax nañu ko am na ay points yu bëri yoo xamante ni sulever nañ ko mhm. ñu ngi naan sax euh, le système na garantit pas le secret de vote ah oui ñoom wax nañ ko ci biir rapport bi donc te li ma wax sànq rek mooy que man dama jàpp ne. donc kon ñoom critiqué nañ parrainage présidentiel. Mm. parce que bu ñu nee garantirul secret vote mooy euh, présidentiel nañu voté baaxul. bien entendu man Moustapha lu ma jàpp mooy. Mm-hmm. bu ñu ci tuddee euh, élection locale. parce que tamit mu noo jóge ci élection présidentielle boo xamante ne nii dañu ne le président sortant gagné na ko au premier tour aucun des candidats. Euh, numtre de l'opposition mm-hmm. naa fee recours yow mission nga jóge fële ne élection bi donc day un day xaw a gauche un xaw a gauche moo tax ñoom seeni euh, euh, euh, perspective yëpp ñu ngi ko teg ci élection locale mais comme nu ma la ko waxee sànq. Mhm. nu mu dulati les les arguments yi ñu teg ne moom moo war a tax def war moo tax waru ñoo def système de parrainage ci local yooyu yooyu la ñu retrouver exactement ci élection présidentielle bi maintenant pourquoi réaction nguur gi mhm. <laughs> maa ngi bind ci benn article ne mhm. Euh, madame Aminata Touré ak Aliou Ngouille Ndiaye justement instant yi ñuy def seen i déclaration mais président Macky Sall mu nga Bruxelles di bëgg euh, président commission européenne bi recevoir ko dafa jóge ci bureau dem ci euh, bureau commissaire européen du hmm. au commerce donc ñoom li nga xamante ni ñu ngi koy kaas ci kaw président Sall moom xam na réellement pourquoi te dama koy wax sànq hmm. recommanda mënuloo def nu mu tuddati observation maanaam nga ne da ngay teewe élection yow yaay témoin nga war a def rapport rapport rapport bi sukkandiku rek ci lii baaxul lii baaxul lii baax na lii baax na n'est-ce pas boo bëggee def rapport bu baax il faut nga wax li nga gis li nga xamante ni gis nga ko te jàpp nga ne baaxul. ak li koy saafara très bien nga indi ay recommandations pour wax ne lii kat. parce que recommandation mooy lii suñ ko defee dina saafara. effectivement léegi nag ñi nga xamante ni ñoo ci réagir ak ni ñu ci réagir. yaakaar naa comme li ma wax au départ rek contre feu la ñuy la euh, ni ko As Babacar fàttalee léegi mm-hmm. su union européenne demee ba naan lii nañ ko changé dans les plus brefs délais nañu abandonné euh, parrainage pour les locales dans les plus brefs délais oh, non xam nga déjà euh, mm-hmm. li li li mooy de ñu ne élection locale premier décembre la <laughs> donc lépp lu mun a am ci ci diggante bi pour bref dara la donc man sama dëkk y a redondance mm-hmm. dañu waroon yem juste rek ne nañ ko dindi avant élection euh, locale yi di ñëw ñun xam nañ ne c'est euh, le premier décembre bu dee daxuñu ko mhm. léegi li ci li ci li ci grand bi wax c'est vrai que c'est un bout de phrase mais boo jëlee phrase bi yëpp dans son intégralité mais doo doo ci gis comme nu mu ko gisee léegi parce que soo liiree juste mhm. le système de parrainage a abandonné dans les plus brefs délais mais effectivement sénégalais bu ko dégg mën na la heurter mais nag nekkul loolu rek mooy phrase bi c'est tout un chapitre te comme nu mu ko waxee tout à l'heure chapitre nu mu tuddee di point bi yëpp hmm. recommandation lañ ko tuddee te bëgg naa tamit ñu jàpp xel bu ñu ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax si moo boobu quoi hmm. recommandation du defal par force voilà digle la soo defee baax na soo deful bu ci jàngoro juddoo nga xam ne ci la juddoo te li as Babacar wax sànq euh, quelque part suñu respecté wul wala boog suñu jëfewul recommandation yi wala boog yeneen yi nga xam ne moo jóge woon ci coalition Idy 2019 ak ñeneen ñu liggéey ci élection président euh, local yi jëm mën na nekk benn bomb boo xam ne xamuñu fu muy yem alors euh, euh, Modou fal est-ce que quelque part mënuñu wax ne su gouvernement bi réagir nii c'est parce que ñoom nañu sentir ne la délégation de l'Union européenne xëy na dafa dépasser cadre mission. waaw effectivement loolu na parce que boo xoolee ñaari réaction yi donc bi ci jiitu di réaction ministre bi man nañ ko comprendre parce que moom dafa wax ni Union européenne amuñu prérogative ñëw naan réewum réewum réewum Sénégal. abrogé leen seen telle ou telle loi xam nga loolu la kon loolu ça en un sens parce que boo liiree rapport bi mhm. dafa am euh, quelque part foo xamante ni nii loolu la fa effectivement Union européenne wax donc looloo tax moom mu mu mu mu indi euh, mu wax mu wax point boobu parce que bu ñu demee ci rapport bi ba ni mhm. la loi doit être abrogée ça veut dire que c'est extrêmement grave kooku ce n'est plus une recommandation dafa dafa jéggi recommandation kon il est donc yow dañ ko tuddee recommandation mais nekku ko non loolu du recommandation parce que bu ñu nee abrogé loi parce que ba rappeler aussi mhm. euh, parrainage bi yàgg na fi exister parce que même bu doonee candidat indépendant yi doon nañ def parrainage ay notion de signature ak peut-être élargir wuñ ko woon ci parti peut-être aussi élargir wuñ ko woon à tout type d'élection mais parrainage yàgg na fi am kon donc waruñu wax ni loi mhm. xamante ni nii par Euh, à la paj euh, voilà à la page vingt neuf mhm. ci fin bi dañ ni que le parrainage citoyen soit légitime en son principe ne fait pas de doute xam nga <laughs> soit légitime à son principe. ne fait pas de doute cela veut dire que ñoom accepté nañ parrainage bi. non mais ils disent sur le principe comme sénégalais yu bëri ah. Youssou Daouda moom laa waaw foofu laay bon. voilà loolu laay wax moo ma ni effectivement yàgg na fi am du lu du lu bon. mais comme du bon. sur le principe comme voilà sur bon. Euh, la justice. voilà donc kon euh, boo boo demee boo demee ci page euh, page 31 ñu ngi wax ni. le parrainage citoyen présente des risques trop élevés. dans le cadre des élections locales et devrait par conséquent être abrogé abrogé c'est le mot qu'ils ont utilisé mhm. kon xam nga foofu problèm am na parce que ma wax la techniquement mhm. non damay expliquer techniquement il est possible waaw euh, euh, devrait voilà mais techniquement parce que droit maintenant moo tax ma wax loolu techniquement boo mm. xoolee boo boo xoolee techniquement parce que li tax ñu wax loolu mooy boo xoolee techniquement c'est possible techniquement techniquement techniquement c'est possible ñu def parrainage au local. oui techniquement techniquement c'est possible. parce que euh, dafa am loo xam peut-être dañuy échapper day xaw a échapper ñenn ñi. techniquement conditions yi mën nañ ci dem ci parrainage bi mais peut-être après dana am ñuy kaas parce que boo xoolee euh, élection yi ñu jëm élection locale la donc waruñu ko xool au niveau national. Hmm. cela veut dire que les dossiers qui seront traités seront traités au niveau local ci commission yi nga xamante ni ñoom ñooy récupérer dossiers yi te nekk ci préfecture yi ak sous préfecture yi. Hmm. commune boo dem. bu fekkente ni commission boobu créé nañ ko normalement l'outil de contrôle bon affaire yooyu dinañ ci dellu si waat. dinañ ci ñëw soo ma waxee ne traite au niveau local moo gën alors que dans le rapport le on nous dit que le conseil constitutionnel ci boppam. am na difficulté pour traiter cette ce parrainage là su ñu ko bëggee au niveau local avec des sous-préfets et des préfets yoo xam non non non c'est pas des sous-préfets et des préfets c'est des préfet ak sous-préfet. Oui. parce que euh, c'est nuancé. Mhm. ils parlé de préfecture. Oui. et de sous-préfecture et de commission. Mm -hmm. commission yi récupérer dossier yi moom laa wax c'est que il faut nga comprendre fi may waxee. moi Bien je sûr. que techniquement. Mhm. il est possible d'organiser le parrainage. Mhm. Ah, te du am benn problème ci te du benn problème ci ci local yi ñu jëm te du am benn problème. ça dépend ci naka la ñuy procéder. voilà parce que difficulté yi ñu am difficulté majeure yi boo leen génnee nga sérieux leen da ngay gis ni. bi nga xamante ni fa la problème bi posé wu mooy le fichier. Mhm. donc bu ñu amee possibilité n'est-ce pas xool fichier bi man naa nekk muy un de deux logiciel bi nga xamante ni nii moom moo doon def euh, contrôle bi logiciel boobu doon def contrôle bi bu ñu ko wanee de manière transparente ñu génn ci ay échantillon def test yi ba ba ñëpp d'accord ne effectivement li fiable na ñu dugal ay données vérifier ko ñëpp teew donc su boobaa dana mën a nekk est-ce que finalement c'est pas mois de juin les locales c'est en au mois de décembre ba léegi les difficultés majeures laa ngay wax pouvoir bi tegugu ci loxoom pour sëqati ko dindi waaw parce que dialogue dañu lancé dañu dialogue politique donc pouvoir bi mënul prononcé il faut mu bàyyi acteurs yi ñu joxe seen point de vue ñun ñëpp ensemble comme d' accord nañ ni parrainage bi am na problème donc ñu xool réfléchir ndoo ensemble comme li ma fi doon wax sànq logiciel bi contrôlé ñëpp càmbar ak yeneen éléments yoo xamante ne nii donc il faut vraiment consensus am ci il faut ñëpp d'accord ci pour ñu mën man mën koo dérouler Ass Babacar yow da nga gérer ay parrainage bu candidat Idrissa Seck du début à la fin xam nga li ci nekk yëpp xam nga dossier yi nga yóbbu xam nga naka conseil constitutionnel traité xam nga résultat ba mu leen jural parce que defe naa delloo nañ leen ko ngeen wutiwaat est-ce que euh, ak tout ce qui s'est passé ci seen candidature boobu suñ ko jëlee comme exemple rek xam naa li valable pour Idrissa Seck dina valable pour Ousmane Sonko keneen ak keneen est-ce que yaakaar nga ni techniquement comme ni ko Modou Fall waxee c'est possible de refaire le parrainage euh, au local yi jëm. non Modou xam na ni ce n'est pas possible te xam na ni local bi le pouvoir va tout faire pour ne pas appliquer véritablement le parrainage fii laa ko waxee mënu nekk ci condition yu nekk non mënul nekk. il faudrait que non mënul nekk déjà élection yi au niveau local les élections euh, territoriales ou locales territoriales parce que léegi territoire la ñuy wax. mais double élection la c'est-à-dire que bu ñuy voté mairie bi dañuy voté département bi n'est-ce pas te dañuy laaj un un virgule cinq pour cent ay parrain ci commune bi mhm. laaj pour chaque liste ba pare laaj ko au niveau du département est-ce que mën nga parrainer ci suuf parrainer ci kaw est-ce que il y a beaucoup de choses ba pare li may waxaat dama ci wax mhm. quand on dit que ça va être au niveau des préfectures et des sous-préfectures mais mais quand même c'est sûr que les commissions dañuy adossé wu ci l'administration territoriale qui qui va jouer un rôle important. encore que encore que encore que loolu laa bëgg a wax euh, Moustapha encore que dans le encore que dans le rapport dans le rapport am na ci recommandation bi xam ni am na ci benn bloc bi nga xam ni. ci administration local bi la. rapport bi wax na ni. Mhm. suñu administration bi compétente na mais dafa manquer de transparence war dafa waroon sax gën a xóot parce que ñun gis nañu ni non am na solo ñun gis nañu ni am na ci ay préfet ki ay sous préfecture yi nga xam ni ay préfet yi nga xam ni ay bras armé wu état bi lañu par rapport à des faits que nous avons vécu quand le secrétaire général du ministère quand le ministre bi mu làqatoo ci ginnaaw le secrétaire général ba génnee ces message là le jour des élections message ça 68 69. waaw pour permettre à des à des trucs ñu voté ci biir. Mhm. mais préfet yi ñoo ko doon exécuté. man mi dañ maa woo ca Gossas ni ma préfet Gossas a ngi fii di orienté ay nit ma jël sama téléphone woo ko préfet Gossas. Mhm. mun ma woy effectivement jot naa un message qui m'a permis de le faire alors que ñun jotaguñ ko woon donc nit ñi war a sukkandiku waruñu koo mën a def ba pare li ma wax aussi nañ ci bàyyi xel. Mhm. man ci commune laa dëkk ci biir Waalo. xam naa ni préfet ba dafa am ay rapports yu am solo ak maire ya fa nekk te looloo am fépp nag. mu am ay conflit d'intérêt ay kurtu kurtu yu mel noonu. dafay doy waar mënul nekk maintenant li ma bëgg wax mooy. ci parrainage les vrais problèmes même. les vrais problèmes mhm. su ma jëlee parrainage Idrissa. xam nga dañuy foyee mbir mu doy waar. man je me suis battu pour être premier pour njëkk déposer. waaw que article L57 par rapport ak daaw ay doublons. est-ce que njëkk déposer boobu loi prévoir na ko pour local yi. mais moo moo voilà partout moo voilà partout léegi dama ni mhm. tey ji pour wax ne dañuy fo xeex naa pour nekk premier nekk premier ñu foqati ko sama loxo wax ne Mimi Touré mooy mooy première mais après laa xam ni su ma jëloon pay tey ji Idriss Seck du dem élection du nekk candidat mais lu doy waar yi nga noonu parce que nañu tëggee L cinquante sept bi dañ lay wax ni mhm. buñ la génnelee ñun ñu ngi déposé soixante six mille huit cent vingt pare ñu génneel ñu li nga xam ni amoon neuf régions dix régions yi nga xam ne dugaloon nañ ko à plus de deux mille mhm. suñu biir on s'est retrouvé avec avec avec moins de sept régions dedans waaye le taux global bi ñu waroon am am nañ ko Moustapha waaye xam nga lan moo ci doy waar ba ñu dindiree loolu ba ñu am juróom benn région cent soixante seize personnes rek la ñu amoon comme doublon yi nga xam ne moom la ñu amoon ci suñu liste am ko ci listu euh, pouvoir bi ñu ni ñi gis ngeen 176 personnes yu nekk seen bos nekk ci bosu Macky Sall waaw ñu ni ñu gis ngeen 5000 personnes personnes yooyu ñu ci li nga xam ni teg nañ ko ci teguñu ko fenn maanaam invalide nañu wax ni gaañ ñi dañu dañu waruñoo voté waruñu parrainé ci région boobu te ni ko Youssou waxee léegi fekk ñun bi ñuy def parrainage defuñu parrainage avec récépissé parrainage carte à la la donc ay nit la yu dëkk biir Ziguinchor indi seen carte di voté Ziguinchor ñu dugal ko ci ñu ni ñu ñii waruñoo voté Ziguinchor mais li ci doy waar mooy dañ ñu ni 172 personnes yooyu 176 personnes yooyu rek. Mmh. ngeen am sañ-sañu remplacer leen sañ te ñun ñu ngi manqué woon par exemple fukki nit euh, juróom-ñaari nit ci ci ci Casamance. d'accord donc gis nga bu fekkoonte ne dañoo jëloon pay tey ji mhm. xam nga du ñu am doublon si nous étions premiers du ñu am doublon mhm. ba pare ñu manqué une région bi nga xam ni amuñu ci amuñu amuñu ci 2000 te bi ñu xoolee les 176 personnes yi nga xam ne su ñu amuloon doublon dañuy resté ci ñun juróomi nit ñoo ci dëkk Ziguinchor donc Idrissa Seck serait éliminé parce que wéy euh, manqué na ñaari nit au niveau de Ziguinchor xam nga ay caaxaan la donc lu doy waar la beneen bi lu gën a doy waar mooy cent soixante quatorze mille personnes def nañu nekk nañu ay doublon te ci fiche bi doon joxe. Mhm. article L quatre-vingt-huit dañu wax ni képp ku nekk ci ñaari liste wala yëpp dañ lay daan parce que daan nañ leen cent yaa ngi daagu ba léegi beneen bi mooy fiche bi nga xam ne dañ koo génne joxe ko modéliser wuñ ko ñoom dañoo génne waa pouvoir bi dañoo génne seen fiche originale tiré ko ay millions et des millions def ko ay rames de papier jox ko ñun ñu jox ñu cinquante fiches ñuy wër ci cyber yi di ak ci suñu kii di di photocopier ak seen i moyens ah PDS daal di jël def ko bu zone parce que la fiche n'est pas modélisée dafa am yu bare yu nekk ci beneen bi mooy mhm. je comprends Mimi Touré ndax coone jamo am foofu xeex ba jàppat jàmbaar la nag xeex fa ak nit ñi ñu kurti kurti bu ñu ñëwee tey ji wax ko war na mën a. waaw parce que nee na moom sans parrainage élection yi doonul woon baax. non non moom moom léegi Union européenne. Mm-hmm. li ma comprendre ci Mimi nii coono ba mu ci am. effectivement noonu la mën a demee mais damay ñëw ci Aliou Ngouille Ndiaye. j'ai compris pourquoi Aliou Ngouille Ndiaye véritablement à cette position là wax naa ni nous avons une position républicaine par rapport à ça. Mm-hmm. pas d'ingérence ci ñun. Mm-hmm. waaye boo demee ci article ci ci page 7 bi page 7 rapport bi. mais de façon très claire Union européenne dafay wax ni tension du ma ko tension paragraphe mooy de troisième paragraphe bi ah. mhm. dafay wax ni tension ak manque de rupture de confiance bi am entre opposition ak pouvoir mu ngi dale ca 2017. waaye nag ki xëpp dëwlin ci taal bi mu ngi tudd c'est le ministre de l'intérieur. c'est ce mu ngi nii en février. Euh, voilà ce manque de confiance a été accru mmh. du fait d'une déclaration en février 2018 du ministre de l'Intérieur chargé de l'organisation des élections en faveur de la la réélection du président sortant dès le premier tour. ok xam nga mais mhm. xam nga lu ci doy waar euh, Moustapha. maa ngi doog a mais nag mais lu ci doy waar mais dañ ko diw bër bi Moustapha dañ ko diw bër bi. Uh-huh. Uh-huh. xam nga ku wax lii. te ñaar fukki recommandation yi ak juróom ben recommandation bi njëkk moo waroon nekk waa ji nañu seppi loxoom ci mbir mi nañ ko remplacer. malheureusement il n'y a aucune recommandation qui touche Aly Ngouille Ndiaye par rapport à ça te ñoom ñu ni mm. moo xëpp. kaani ci affaire bi ba lépp am c'est c'est c'est très clair maintenant li may wax aussi de façon très claire la mission européenne fa laay jeexale ba ñu ñëwee le 15 janvier la ñu ñëw Sénégal ñun presque ci biir février la ñu topp sama candidat Idrissa mhm. pour wax ak moom topp ma pour wax ak man ñun très tôt on a dit non euh, Modou parce que jaan euh, dafa dem ba pare ñu dóor ci watit wa ñun on a di on ne vous rencontre pas parce que bu ñu la rencontré woon tey mhm. quelque part parce que en vérité ils son venus le 15 janvier ba le 17 mars un mois un mois indi téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-benn 126 personnes xam nga lan la ñu wax ci rapport bi juróom-ñaar 701 bureau de vote la ñu xool 701 te il y a 14 561 bureau de vote la ñu xool matul sax 5 pour cent bureau de vote yi ñu xool xamuñu fan lañ ko xoolee est-ce que bureau Dakar la feneen non ce n'est pas sérieux ba pare. Mhm. bi ñuy def seen recommandation yi ci bloc bu njëkk bi. muy le cadre juridique oui. deuxième bloc bi ëpp solo muy euh, l'inscription des des candidats bi am révision bi bi am fichier bi et cetera nga xam wuñ ci dara dara dara foofu la ñu dugal juróomi recommandation pour wane ni mbir ma foofu la nekk donc dans le cadre de ces missions là tant que ñëwuñu topp processus bi depuis le début ce qu'ils font c'est du cinéma d'accord alors Youssou Dao li nga xam ne moo euh, su ma ko mënee waxee noonu mooy jaaxal Union européenne mooy nan lañ mën a demee ci élection locale ak loi bi ñu yor sur le parrainage Euh, Modou Pall wax na ne techniquement c'est possible As Babacar ne ko c'est pas possible est-ce que yow mi nga xam ne tamit fekke woon nga lenn ci niñ doon valider ak yooyu techniquement est-il possible ñu dem élection locale ak parrainage. Euh, man bind naa ci sax benn article parce que bi ma xoolee euh, comment dirais-je parrainage au conseil constitutionnel yi fa am ma xam ni kii war nañ ko mën a régler s'il y a un consensus et solution technique mën na am seulement day fekk nag ñu nangoo appliquer des solutions techniques parce que dama proposé woon euh, ñaari solution dama ne ou bien ñu ànd ci ñu améliorer dafa ne améliorer dafa ne mooy lan fichier bi ñuy jox conseil constitutionnel xam nga conseil constitutionnel moom moo géré wul fichier mhm. day doon fichier bu acteurs yi certifié ne bii nangu nañ ko mën na mën naa dem ci parrainage te nag données yi nga xam ne ñoom la ñuy traité yow données yi nit day indi carte d'identité nga transcrire ko ci une jël fiche ba saisir mais à, à chaque niveau il y a des taux d'erreur absolument Modou Fall carte d'identité ak sa yim yu ko Fall bi ñu bind ko benn L au lieu de ñaari L rek moo Modou dootu pare na te ki nga xam ne dafa doublon la def parce que ab tur xaalis lay wut dem parrainel euh, Moustapha parrainel Modou parrainel kii kooka dañ naan ko yow may nañ la nga changé ko kooku mën naa ne turian la ab sàcc kenn ki nga xam ne moom daa daa pare ju bari parce que fu ne daa dem ñu jox fa junni may nañ la nga changé kooku moo tax ne war nañ ko seetaat soo gisee nag ma ne ànd naag muuru ci sur nous on se on se parce que dama ne solution bu njëkk ba man damaa proposé woon ne comme nangu nangu ñoo joxe fichier bi nit ñi xool mën a def seen i contrôle nañ defal boog candidat bi ce qu'on appelle un contrôle d'étape bu ko defee bu dajale bu bu Babacar dajale ba mat ñoom ñu def ko ko saa ñu wax ko nag erreur am ne ko enrichissement bi baaxul bii baaxul bi baaxul mu dellu ci fiche am corrigé ñu ne la may ne la ñaari contrôle d'étape doog la traité bu ko defee ay régime dana wàññeeku dana ko dindi benn ou bien nag di gën baax nag mooy ñu def une solution en temps réel am une application où le fichier est en ligne ñu créer des commissions de parrainage comme ni ngi defee commission de distribution des cartes administration géré wu ko ñëpp koy gérer Sénat toog parti yi toog société civile toog ñëpp toog booy paralysé da ngay ñëw ñu saisir données bi en temps réel mu consulter fichier bi ne baax na daal di émarger ci fichier wu ki nga xam ne candidat la ainsi de suite bu feesalee ñu ne baax na bu feesul ñu rejeté ko bu fekkee ne pare na pare ñu ne ko kii am na comme pare na pare baaxut bu ko defee dana dekk de façon transparente rejet du am doublon am bu ñu demee nag ba dat ba jeex ku mun ta feesal sa sa sa fichier nag amuloo pare naa bu ko defee euh, day baax c'est transparent waaye nag dafa laaj organisation parce que du caaginu comme ni nga ko waxee keroog wóolu naa sous-préfet sous-préfet yéen def leen ñu def leen neex dañu am une commission pour l'acquisition des données am une application internet nga xam ne nit ki day ñëw ne damay pare ni si joxoo kartam ñu saisir mu def contrôle des données en temps réel bu fekkee ne euh, am na erreur de saisie ñu signalé ko ko si la déjà pare na ñu signalé ko et de suite donc techniquement lu war a a nekk mais est-ce que ci délai yi ñu foofu laa jëm si waaye dañ koy waxtaane une application informatique nag defu ko taf tafee dañ koy defar waxtaane ko maa ngi ñëw juboo ko testé ko validé ko ba ne ànd na ci ne baax na def ay jeu d'essai acteurs yëpp ku ci nekk ñëw indi sa technicien ñu xool ko loolu moo tax ma di wax ne audit bi ñu defoon pourquoi même bu baaxee man ànduma ci parce que audit yi ñu daan def acteurs yëpp dañuy indi seen i techniciens ñu toog étape par étape ñuy def bu ko defee bu ñu demee ba conclusion yi ñëpp ànd ci. waaye nag ak loo am am xam-xam bu fekkee ne la ngay def fekkewuma ko boo indi les résultats su ma neexee ne bañ naa ko. moo tax ma ne la mhm. waxtaan foofu nag ma am ci tuuti yaakaar parce que ñu ngi ci ak commission di liggéey. danañ wax fichier électoral danañ wax parrainage danañ wax yu foofu nag war na bu fekkee ne dëgg dëgg dëgg dialogue bi dañuy bëgg a waxtaan ba trouver solution. foofu war nañ faa mën a waxtaane bëgg gën a fi des solutions aussi bien organisation et technique yoo xam ne yi ñëpp dañ ci ànd waaye nag da nga ci wax léegi je reviens sur hmm. dafa am dele nag liggéey bu ni mel dafa laaj temps laaj délai laaj xam-xam laaj application laaj moyen yi itam nag dinañ léegi bu ñu ko defee est-ce que classe politique dañu war a jubóo pour dàq élection yi dinañ ci ñëw léegi mais même biram euh, xam naa ne euh, refaire la présidentielle moom mënul nekk mais est-ce que sur la base du rapport ak li nga xam ne moom lañ ci liir yëpp jëmale ko ci wàllu parrainage ci sax jaay bi nga xam ne jàpp na ne am na ñoo xam ne moo leen doon jaay seen parrainage te seen tem tudd ko léegi ci wàllu le rôle bi conseil constitutionnel waroon a joué Sénat rôle bi doon joué est-ce que sur la base de tout cela mën nañu remettre en cause sincérité wu scrutin bi est-ce que tey mën nañu jàpp ne élection bi ki falu mooy ki sénégalais yi tànn dëgg waaw question boobu dina jafe Moustapha pour ñu revenir ci parce que Macky Sall moom yaakaar naa ne il s'est installé nu mu tudd dans ses de président te dina jafe trop ñu revenir en arrière ci loolu mhm. mais juste rek pour dire que man jusqu'à présent maa maa ngi dégg les observateurs ñuy wax maa ngi dégg ñi ñuy wax mhm. mais man li tax mooy douter quelque peu si euh, faisabilité, faisabilité système de parrainage bi ci élection locale yi mooy dama déggagul jusqu'à présent kenn ku wax ne kii mooy vérifier parce que tamit comme ni ngeen ko waxee sànq je ne pense pas que opposition bi dinañu nangu administration territoriale bi chargé wu validation des parrains man yaakaaruma ko. ak ndax li ngeen ci wax nii léegi yëpp. président de la république mooy nommé certains éléments de l'administration. très bien léegi bu nekkee élection présidentielle au départ dañu nekkoon vingt six candidats. vingt sept waaw vingt sept. Mhm. dem déposer conseil constitutionnel seeni parrain ñu dégg coow li ci am lépp parce que mënuñoo wax ne euh, euh, def nañ ko difficilement dañuy wax ne forcé nañ ko ba def ko c'est ce qui s'est passé ci ci parrainage bi te loolu noonu je pense que xëy na euh, Union européenne man des fois sax daf may xaw a jaaxal un su ma gisee les tenants du pouvoir ñoom ñuy xarab Union européenne ci rapport bi parce que en réalité daf leen a favorable li nga xamante ni dañ ko waroon a wax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. ak recommandation yi comme ni ko monsieur Fall waxee léegi yi ñu waroon a def dëgg dëgg dëgg defuñu ko te jàpp naa ne suñ ko defoon réellement mooy question bu nga ma posé léegi sa remettrait la légitimité du président de la République te loolu ñoom ñi nga xamante ni dañoo ñëw rek pour céder ah les principaux adversaires du candidat ñoom déposé wuñu recours génnuñu ñu kii kat élection bi jaarul yoon bu duñ ko nangam sangam. Mhm. léegi ñoom ñi nga xamante dañ leen a woo pour ñu ñëw seede ñu wax loolu day gën a see <laughs> day gën a comme ñoom day gën a dëggal li ñuy wax dañ leen di gën a tagg na ay seytaane lañu. Mhm. te yaakaar na yaakaaru ma ne mission d'observation tamit ñu envoyé la fenn nga ñëw wax ne lii dox na lii doxul rek yem foofu il faut forcément mu ànd ak recommandation mhm. léegi nag euh, nu mu durati waxuñu ci présidentielle bi ñu ngi wax ci local yi bu nekkee vingt sept candidats la ñu vérifié woon présidentielle bi passé mhm. mu pose problème yi am yëpp ba mujj ko forcé ne cinq candidats la mhm. parce que ba il faut ñu fàttaliku ne conseil constitutionnel ba ñu génnee seen liste ne cinq candidats mhm. ñëpp dana ah premier ministre waxoon na ko n'est-ce pas donc mu nekk euh, liggéey bu jafe boo xamante ne ni ñoom amoon nañ tous les problèmes pour génne te la ñu sax nit ñi d'accorduñ ci parce que jàppoon jàppoon nañ ne lu ñu préparoon la à léegi nga ñëw ne da koy yóbbu à la base ñu jàpp ne réforme jaar na fi si diggante bi communauté rural yi existé tout lépp ay commune la ñooñu nan la ñuy organiser woo candidats yi déposer seen i ak kan moo koy vérifier man loolu mooy sama problème ndax dañuy jël yi nekk Sénégal yëpp dajale ko yóbbul ko conseil constitutionnel wala ndax wóolu nañu. ña nga xamante ni ñoo nekk foofu ay commission la ñuy créer dans les différentes localités. mais commission yooyu ñoom loolu moo mënul nekk moo mënul nekk parce que. ñan ñooy com ñan ñooy constituer commission yi. par arrêté ñan ñooy constituer commission yi. ñan ñooy constituer commission yi bu nekk ay ay parti lay doon man am na parti yoo xamante ni aw ma foofu candidat nan laay bokkee ci commission bi nekk ci zone boobu. ah. tout ça c'est des questions yoo xamante ni euh, euh, li nga wax sànq Youssou Dawa di ko di ko fàttali moo ay informaticiens ngeen wax ngeen ne techniquement mën na nekk mais mam Birame la question bi muy posé une question politique éminement politique la confiance bi ñu war a am ci l'administration la composition des commissions et tout alors soo boolee loolu ak li nga wax sànq ne techniquement mën na nekk la question bi ma bëgg laaj mooy est-ce que délai bi ñu séparé ñun ak euh, le premier décembre deux mille dix-neuf bi mën nañ ko fee def organiser fi élection yoo xam ne du jur jafe-jafe yi nga xam ne moom la Union européenne ragalal Sénégal. waaw donc euh, loolu c'est une très bonne question effectivement boo xoolee par rapport ak délai yi parce que déjà boo lire le code électoral di nga gis ni à cent cinquante jours avant le premier décembre te boo génnee cent cinquante jours avant le premier décembre daf lay jox le le trois ou le quatre juillet. waaw donc bu la joxee le 3 ou le 4 juillet déjà ci la ñu déposé caution yi commencé. ça veut dire que donc boo xoolee par rapport ak délai yooyu. Mhm. effectivement mënul nekk moo tax toujours ñaari approche ñaari ñaari approche nga koy jële ko ba njëkk bi mooy. par mhm. rapport ak délai yooyu donc euh, c' est clair que ça va poser problème. par contre ku beneen bi euh, beneen élément bi mooy. par rapport ci report waaw. voilà par rapport. waaw dañ ko reporté exactement effectivement non dañ ko reporté parce que bi ñu ko reporté ci cadre de concertation bi passé mhm. la nit ñi décidé woon ni il faut ñu reporté ko parce que délai par rapport ak présidentiel yi ak législative yi waroon nekk au mois de juin bu ñu demee deuxième tour dañuy dem ba mars te bu ñu demee ba mars donc affaire bi du du du mën a nekk quoi léegi ñu proposé report bi looloo tax ñu reporté ko mhm. léegi ñu reporté ko effectivement parce que euh, le 3 ou le 4 juillet ñu fa àggee rek ça veut dire que dañuy dugg ci délai yi parce que premier ministre bi déjà day joxe ban caution day réunir nit ñi fixé ñu fixé caution bi génne arrêté yi jëm ci liggéey te loolu je pense que mhm. c'est pas possible maintenant beneen côté bi may waxee mooy euh, boo gisee man ma ni techniquement c'est possible. Mm-hmm. dama positionné wu en informaticien moo tax moom bi mu positionné wu ci côté mm-hmm. informatique bi. Mm-hmm. mu wax loolu. bon encore une fois xam nga élection local conseil constitutionnel du ko gérer donc commission yi ñu créé au niveau des préfectures ñoo koy gérer te commission yooyu je pense que euh, arrêté arrêté rek moo koy moo fixé te en général ñu bari ci acteurs yi donc danañ fa mën a teew. par contre euh, li ma doon wax sànq. mooy li bi wax ci continuité bi. xam nga parrainage bi ñun ñëpp d'accord nañ ni dafa bari problème. man processus bi yëpp laa suivre kese la voilà processus bi yëpp laa suivre boo gisee man la processus bi laa suivre mooy depuis cadre de concertation sur le processus électoral mhm. en passant par l'audit du fichier man ak moom ñu ngi woon ci comité technique gu audit du fichier électoral grand Youssou euh, après nga jóge fa euh, euh, le le le comité de suivi de recommandation de l'audit du fichier électoral donc ñu liggéey ci comité de suivi des recommandations de l'audit du fichier électoral boo xoolee mhm. fii nii am na fi recommandation yu bari tey boo demoon lire rapport boobu da ko fekk encore une fois foofu dafa am benn problème bi ñëwoon fële ci BBC moo ñëwaat fii ci rapport Union européenne bi parce que rapport yi ñi ñu ngi koy bind di ko publier boo xoolee rapport société civile ak yeneen rapport yi boo xoolee am na point yu bari ni nii ñoo nekk ci document bi mais encore une fois comme si l'Union européenne donc gars focalisé wu ci lire alors que lu bari li ñu fa bind donc nekkoon na ci rapport yu weesu maintenant beneen aspect fi may attaqué problème yi bari na parce que man yàlla dogal na yooyu yëpp fekke naa ko aussi nekkoon naa délégué parce que doon naa collecté pour un candidat le candidat Cheikh Hadjibou Soumaré mhm. donc di ko accompagner ci parrainage bi dem ci terrain bi pour collecter mhm. nekk un délégué régional région de Diourbel mhm. suivre parrainage bi inscrire ko ba yàlla dogal na donc ñun moom mi ngi mooy suivre ñeneen mooy suivre clé bi nga xamante ni déposé na déposé nañ ko presque mën nañ ni euh, dernier réglage yi mën naa ko def kon xam nga man suivre naa parrainage bi de bout en bout ci terrain bi pendant au moins vingt jours pour di collecter pour mes propres euh, mes propres collecte pour sama bopp. Mm-hmm. kon affaire bi comprendre naa processus bi yëpp ni mu mm-hmm. bari na problème wax naa ko sànq te problème yooyu nekkul résoudre parce que daf ciy am yu complexe xam nga sànq bu ngeen jëlee anglo. Euh, le parrain le citoyen sénégalais bi monnayee ñu parrainé sur plusieurs listes boobu benn aspect la mais ñi collecté nag di ko jaayaat c'est encore plus grave yaa yoo xam ne dajale oh, dem jaay bien sûr xam nga yooyu yëpp <laughs> nañ ko fa la donc jël ay liste photocopier jox ma Samba photocopier jox ma Demba et cetera te boo xoolee doublon yi en réalité dañuy wax naan sénégal yi ñoo ñoo ñoom ñoo parrainé plusieurs fois il faut ñu def ci attention parce que man constat bi ma ci def en réalité c'est parce que ce sont des listes qui ont été manipulées ñu jox ko Boubacar Camara jox ko euh, diw jox ko Massamba jox ko ma dem war a topp ci yoon voilà donc looloo tax au finish boo xoolee un candidat qui se retrouve avec mille doublons sur soixante six mille vingt mille doublons ça veut dire y a un problème y a un sérieux problème voilà y a rek parce que sérieux problème bi foofu la nekk beneen aspect bi may jëlee par rapport ak euh, collecte bi mooy mhm. Sénégal yi dañuy ñëw di collecter di leen laaj seen ay information de données personnelles parce que seen carte nationale d'identité la ñuy jox collecté ko jël ko yóbbu ko fu ñu ko yóbbu xamuñu pour ban période lañ koy garder xamuñu te pourtant y a la loi portant données à caractère personnel chaque jour dama ciy insister mmh. parce que dafa am deux lois yoo xamante ni ci Sénégal dañ leen di négliger bu ñu demee ba ci biir ñu ci revenir aat toujours ñu naan données personnelles wala ñu naan la loi sur la cybercriminalité gis nga ñaari loi yooyu mmh. réew mi dañ dañ leen a xam dañ leen desee jox seen cër parce que tey normalement kenn warul déplacé dem ci citoyen sénégalais bi di collecté sans pour autant nga am charge boo xamante ni en tant que responsable du traitement di nga ko wax données yi ngay collecté fu jëm peut-être mën nañ koo xam lan mooy finalité yi ci ban nga koy collecté parce que normalement est-ce que waruñu woon a réunir sénégalais yépp daan ni lii lañ collecté woon dañ koy détruire parce que boo gisee maax la loolu mooy ñi collecté yore photocopie carte nationale jàmbur yi boo lëgee bu ñu collecté est-ce que dinañ wër waaw mën nañ ko utiliser waat. waaw dañ koy utiliser waat muy benn déjà danañ non seulement nañ ko utiliser waat. Mhm. deuxièmement am na discriminant bu ñu choisir muy un discriminant de 17 parce que moom mooy permettre à ce que donc ñu dissocier information yi. Mhm. mais discriminant boobu utiliser nañ ko cette fois. si est-ce que dinañ ko mën a utiliser waat je ne pense pas parce que ñëpp am nañ discriminant bi ce n'est plus un discriminant ça veut dire que il faut ñu choisir beneen discriminant hmm. bu ñu choisir beneen kon na dëgg nañ bàyyi parrainage bi rek ci local yi ñu jëm waaw mais mais mais mais ah, problème yi yëpp moom mënuñu ko rek donc te problème yi jeexul moo tax ma jeexul uh-huh. wax yeneen ak yeneen parce que dañ nekkoon ci terrain bi uh-huh. sans oublier un candidat qui dépose plus c'est c'était c'est extrêmement grave dafa am ñaari problème yoo xamante ne nii. candidat bu déposé li ëpp li ko. conseil constitutionnel waaw Malick Gakou mi ngi ci rapport bi ah. waaw Malick Gakou dafa déposé 67000. 67000 alors que 66000 lañ lañ demandé. mais xam nga loolu normalement affaire bu hmm. grave la. te pourtant ba léegi déggoo ko ci wax le pourcentage demande c'est 1 pour cent am ku déposé plus de un pour cent. ñu valider ko ba mu dem deuxième tour bi mu demee deuxième tour mu am ay doublon ñu éliminer ko alors que doublon yooyu war na ko mën a waroon na ko mën a remplacer waat muy yeneen problème yoo xamante ni déjà deux yooyu yëpp dugg na donc looloo tax ma ni comme système la boo xam ne mais Modou Fall lan lan moo jur loolu c'est parce que loi bi bi ñu koy def waxtaane wuñ ko ba juboo ci wala ñi ko doon def seen objectif moo doon def ko dans de telles conditions que ni dañuy éliminer ay candidats waaw non xam nga mënuma wax ci objectif mooy éliminer candidat que mhm. ño prétexte bi ñuy jox wala les motifs exposés yi ñu exposé dañoo wax ne dañ jóge ci élection yu bari problème muy législative ñu am 47 candidats bu ñu deful attention bu ñu demee ci présidentielle bi te présidentielle quand même dafa nekk une élection sérieuse ñu ci am yenn candidats yi donc mieux vaut ñu ñu réduire candidats yi faire de la rationalisation en utilisant benn filtre mhm. filtre boobu ci lañ choisir le parrainage citoyen te comme parrainage citoyen existé woon na ñu appliqué ko ci parti politique yi parce que bu ñu ko appliqué wul woon ci parti politique. kon kon kon kon kon kon. Euh, euh, discussion yu bari du ci am. bala may jox as Babacar euh, Mame Birame su ma déggee filtre le ak li nga xam ne moom la Mourou Fall expliqué yëpp ci parrainage bi on a l' impression que ñiy wax ne le candidat sortant c'est choisir ses adversaires finalement ils n'ont pas mooy réaction bu sénégalais yi amoon rek au lendemain bu bu gars yi publier liste cinq candidats yi. Mhm. dañu wax ne premier ministre waxoon na ko. je me rappelle que sax euh, que ñu ngi jël euh, la une de Walf Quotidien qui ki qui qui disait justement Boun Dionne le devin génne cinq candidats yi mhm. c'est effectivement ça parce que Moustapha dañu ne lan moo tax ñu ne dañuy deg le système de parrainage ñu ne pour que n'importe qui ne soit pas candidat dañuy rationaliser mais président de la République le sortant n'est pas n'importe qui sa représentativité est assurée jëruloon muy parrain mais lan ciy def lan la ciy def xam nga ñeneen ñi sax mën nañoo naatable ne mhm. ñii xëy na ils ne sont pas représentatifs euh, tekkiwuñu dara comme ni ko ñenn ñi di waxee mhm. mais le président de la république quand même sortant mais moom jarul muy bokk système de parrainage te bu doublon yi bare mhm. mais bokk na ci li ko créer parce que bu nekkoon da ngay avancer moom ñi nga xamante nii euh, euh, Aminata Touré déposé na ko yëpp yaakaaruma ne ñeneen ñi nga xamante ni topp nañ ci doon nañ am doublon yooyu. parce que ñoom ñu ngi doon wax ay xaw ma ñaata millions de parrains lañ bëgg ah avant élection yi. te boo seetloo euh, Union européenne li tax ñu ne système de parrainage bi garantirul noonu. Euh, euh, secret secret vote bi effectivement loolu moo tax ñu koy wax parce que président de la république soo seetloo. le nombre de de de de de de collecte euh, de signature yu mu collecté. Hmm. mais loolu la am ci élection présidentielle mais justement Mame Birame euh, <laughs> justement Mame Birame peut-être euh, si on accepte de lire entre les lignes. parce que c'est votre travail nag yéen journaliste. waaw moo di ne booy lire dëgg-dëgg le rapport dañuy wax clairement que ni. vote bi sincèreul bien sûr loolu la que bu ñu waxee ne ni ñu defee parrainage bi garantirul le secret du vote. wax ne le conseil constitutionnel bi doon compter amuloon les moyens pour pour le faire. dinañ ci ñëw léegi disqualifier le ministre de l'intérieur comme ni ko As Babacar waxee. disqualifier la Sénat. waaw mais cela veut dire que ni vote bi sincère boole ci Babacar Diagne. CNRA euh, CNRA ak yi ak télé yi maanaam ñu disqualifier ko. Mhm. donc la lan moo des. mais comme nu ma la ko waxee sànq yow munoo ñëw ne da seede parce que nu mu tuddati euh, mission d'observation seede rek la. Mhm. ñi nga xamante ni ñoo doon bëre waxuñu ne élection bii. xëy na kon Idrissa Seck ak euh, Madické Niang ñeneen ñi defoon recours. je suis persuadé Union européenne na wax ne ils ont raison. très bien j'en suis persuadé. As Babacar euh, tey jii euh, sànq yaa ngi wax ne techniquement c'est pas possible ñi ne c'est possible mais tey bu ñu demoon élection locale ak le système bi ñu yore ak les les parrainages lan mooy risque yi concrètement lan mooy risque yi. bon risque bi ci jëkk te ñu koy bañ a xool mooy la dimension sociologique sociopolitique. Mm -hmm. nee nag commune dafa nekk li nga xam ni dafa dafa dafa jege c'est-à-dire que acteurs ya fa nekk. Hmm. daanaka daanaka ay nit même famille la ah. famille la. benn famille la surtout ci yenn zone yi. non non c'est pas possible ba pare ñu am ay mbir yi nga xam ni dañ koy séqante. ndax ku wax commune wax suuf wax leneen wax leneen wax leneen ñun junj doy na boroomi xel. absolument te it ñu ngi dem peut-être ci ay mbir peut-être que le mode d'élection du maire peut-être ñu changé ko peut-être hmm. parce que ñu ngi ci ay waxtaan. bu yàlla defoon ñu changé ko ba léegi ñu dem ci suffrage direct nga xam ni bu ñu ñëwee ci commune sàngam xam nañu ni euh, euh, yu Mame Biram ak Modou Fall ak As Babacar ak yow ñoo war a nekk maire déjà ce n'est plus un problème de liste préfet ba war a nekk fu fële nekk ak commission ba koy wër ak techniquement et cetera trafic d'influence bi dafay bare par rapport à ça beneen bi mooy boo xoolee sax loi bi mhm. euh, bu ñu nee un à un virgule cinq pour cent de de de de de de parrain mhm. am na ci ay communes yi nga xam ni cinquante personnes lañ leen laaj wala trente personnes te te kii ñàkk fayda parce que man commune bi ma nekk muy la commune de Gnitch y' a six mille électeurs pour cent de six mille ñaata la. certainement soixante xam nga yooyu yu yu tekkiwu dara la yu xam nga yooyu tekkiwu dara ba nga xam ne même ni nga xam ne même bu ñu demoon bu ñu demoon ba koy def pour wax la ni c'est mal pensé bu ñu demoon ba koy def hmm. foog loolu dañ koy multiplier par deux wala et cetera parce que dafa di laaj ay cinquante ki trente et cetera ce n'est pas sérieux beneen bi mooy mhm. euh, difficulté majeure bi am ci loolu mooy li ma waxoon ci ni euh, au niveau euh, de la collecte li nga xam ni technique bi nga xam ni moom la moom la pouvoir bi utiliser muy ñaari technique yi nga xam waxuñu ko mooy la technique d'assèchement ak la technique de coup de pouce muy lan assèchement bi mooy yow ñu laaj la yaa ci soixante six mille huit cent vingt mhm. nga génne say milliards pour am deux millions parrain pour prouver aux autres le soin d'avoir des parrains teg say waxande sénégalais deux millions te tànn ci soixante et au même moment prouver que ni am nga euh, benn bassin électoral boo xam ne ça suffit déjà pour passer au premier tour alors qu'on te demande soixante six mooy gis nañ fa aussi la technique de coup de pouce gis nañu duñu tudd kenn comme ni ko Modou di waxee gis nañu ci ay candidats yu am ay difficultés yi nga xam ne yaakaaroon nañu di ñu génn ci difficultés yooyu mm-hmm. en un laps de temps là où des des candidats sérieux cherchaient à être véritablement euh, régler yenn affaires yi ñoom ñi nga xam ne dañuy yaakaaroon du ñuy am problème bañ leen waxee dem leen rek dañoo dellu si ñëw régler kooku coup de pouce la donc yooyu dafa doy war beneen bi aussi mooy euh, façon bi ñuy déposé nga xam ni loi bi dafa ci dafa ci dafa ci am problème mm-hmm. euh, que ku jëkk déposé ku jëkk déposé perte nga te même boo xoolee article L cinquante sept bi nañ ko bindee ci tubaab dañuy wax par rapport à la première liste du wax par rapport aux premières listes aux premières listes mhm. maanaam nous nous sommes deuxième par rapport à la première liste mais même yeneen yi Modou da ko xool dañuy wax toujours par rapport à la première liste du ñu wax par rapport à la ou les premières listes déposées. Hmm. cela Donc, ni euh, l' essentiel mooy euh, numéro un bañ laa jiitu. loolu la euh, numéro deux numéro trois. c' est ça biiral texte bi L57 c' est très clair ce que je dis là. beneen bi aussi mooy le problème du discriminant Modou wax na ko léegi. discriminant bi dafa hmm. nekk mbir mi nga xam ni Aly Ngouille rek ak le pouvoir ñoo ko dencoon ni bis bu yëf yi desee 150 jours dañ leen jox fiche bi ba pare booba la ñuy wax discriminant bi. fekk entre mooy lan pour ñiy déglu cest dire que mhm. la fiche dafa am nu muy tëddee mhm. ñu bi dafa war am lii am lii dafa war a am donc nom prénom mhm. am commune bi am date et lieu de naissance et cetera waaye des na benn élément bi nga xam ni yéen du ngeen ko xam tant fiche bi génnul cent quatre-vingts jours avant bu doon élection la wala ko wax voilà te loolu nag ki nga xam ne moo koy organisé je je le discriminant le discriminant c'est ça cest dire que préciser que ni carte bi ci biir carte bi euh, parce que discriminant mooy nit ki pour mu mën a pour mu mën a parrainer il faut que yore carte bi. waaw léegi nag parce que yeneen nit ñi amoon nañ ko ci ancien fichier. Modou mm-hmm. amoon nañ information yëpp. sauf benn information kese. te boobu ñu gis ni mooy carte. Modou li nga wax léegi lu tax mu intéressant Modou li nga wax lu tax mu intéressant mooy. bu ñu nee discriminant bi mooy numéro CEDEAO muy 17 chiffres ñu denc ko ba fin bi ñu wax ñu ko. Mm-hmm. léegi bu ñu demaatee ci yeneen élection discriminant bi war a nekk rek ci biir carte bi. dañuy changer discriminant lan la ñu mën a wax numéro Sénégal bi la war a nekk wala leneen maanaam li war a nekk discriminant boo ko étudier rek di nga xam ne discriminant yi nombre bi mënul passer temps et bu ñu defee ñetti élection daañu ci génn donc loi bi nga xam ni. ci article L57 boobu tamit ma bàyyi. ca la ñuy def ni pour être électeur virgule pour être candidat virgule il faut être électeur. Mhm. maanaam dañuy jël article 57 ñu ñëwaat ci élection yi vingt heures vingt heures mu ñëw ni cinquante huit pour cent lay nekk c'est-à-dire que maintenant sàcc ndënd yomb na mais tëgg ko moom moo jafe uh-huh. léegi téye nañ ko élection yii ñu jëm muy local wallaay li ma leen wax dañuy prêcher le vrai pour avoir le le faux pour avoir le vrai uh-huh. ñoom ñoo gën a yàkkamti tey ji opposition bi ne leen lii mënta nekk uh-huh. parce que techniquement am na mais nag damay leeral leen le parrainage ci ay présidentielles buñ ko xoolaatee lu am solo la parce que tamit mhm. permettre na ñun ñu mën a xam ni wax dëgg yàlla nag am na ci ñi nga xam ni manqué nañu sérieux par rapport à ce qu'il faisait ça c'est la réalité donc moi je pense que réew mi boo ko bëggee jël mhm. war nañ ko mën a am ay filtres yi nga xam ni nit ñi war nañ cee mën a d'accord ba nga xam ni ku mënul remplir loolu mhm. nga bañ a bàyyi l'essentiel mooy filtre bi baax quand même mais filtre bi baax ñu waxtaane ko alors ba juboo ci euh, Youssou Daw bu bu bu que tey da nga yaakaar ne par rapport à tout ce a été dit dañu war a jël fële wala am nañu temps wala boog ñu joxe ñu on se donne le temps xaw ma nu ma koy waxee si wolof pour réparer li nga xam ne moo ci ay jafe-jafe avant ñuy soobu ci élection locale yi nga xam ne maam Birame mi ngi fàttali wax ne mi ngi fàttali sax ne reporté nañ ko déjà dañuy wax kay reporter waat. waaw euh, problème parrainage bi. Mhm. comme li ma la waxee rek xam nga fu ñuy wax di déparé. lu tax ñu indi parrainage dañoo bëggoon a rationaliser les les les candidatures compte tenu li fa amoon ca législative yële foofu la mooy point de départ bi kooku nag ñëpp xel nangu na ko ñu ne kon nañ def parrainage parrainage bi naan def la indépendant nañ ko yaatal waaye nag ñàkk waxtaan la cee am dañ koo gaawantoo gaawantu koo xam ni gi da xaw ma lu tax ba nga xam ne parrainage bi baaxut bañ ko defee ma jox la exemple rek ci ci parrainage u euh, constitutionnel logiciel bi hmm. ku mel ni gàkku ba mu ñëwee deuxième tour ñu passé ko dañ ne ko rattrapé nga temps desewaat nga temps de doublon ñu ne ko addéedé jeex na dootu régulariser lu tax te logiciel bi ne ko desewaat nga temps de doublement régulariser ñu ah te kenn bindu ko benn ci kayit bi dañ ne rek tant machine baa lay signalé ne am nga ay doublon mën nga leen a remplacer première fois mu am ay doublon ñu ne ko remplacer mu ñu remplacer ñu accepté lu bari mu desaat tuuti ñu ne ko amaat nga nag tant de ñu ne ko addéedé jeex na il faut savoir moo tax ma woon la ne logiciel bi nañu ko waxtaanee mm-hmm. te itam nag système mu parrainage ñun lañ leen proposé woon ñun au niveau de la grade mën na bari façon parce que on a vu ça dans d'autres pays mhm. parti bi nga xam ne am nay député am nay conseillers municipaux am nay conseillers département am nay nga ne daal prouvé waatal ni Modou Fall mi nga xam ne salaamaaleykum la def rek danaa bëgg doon kàddu nga yemale leen yow am ngay maire am ngay député am ngay conseillers municipaux conseil ba pare du la jariñ dara nga war départ au même titre que Modou Fall est-ce que loolu yëpp dañ ko proposé moo tax ma ne li suñ ko defoon dans le panier toog waxtaanee ko mën nañoo génne formule tax ma ne la parrainage en lui-même bonul mais suñu ko waxtaanee mën na ci génne une formule boo xam ne bii dana baax te dana rationaliser candidature yi te ñëpp dinañ ko nangu. mais tey euh, ñun ñëpp. muy observateurs yi nga xam ne nekk de la société civile. peut-être pas les acteurs politiques parce que ñoom li ñu war a wax nañ ko mais yéen ak observateurs yi mel ne ñoom Bambira Wade ak yooyu. est-ce que parfois bu ñu lire le rapport de l'Union européenne du ñu am kersa que ni lii lépp gisoon nañ ko avant élection présidentielle déet bàyyi seetaan Macky Sall mu dem ci ni mu bëggee gagné ci bëgge mu bëggee déet Moustapha foofu nag danaa danaa la fi wax aywa ñun ñii par exemple mm-hmm. nous avons re Modou mi xam ne ki dara parce que invité nañ ko fa tey en tant que mm-hmm. euh, discutant mm-hmm. am na kuréel gu ñu kuréel gu ñu Profop c'est le forum des partis politiques ñetti thèmes waxtaanee nañ bu ci nekk ëmb li lépp defi recommandation yu ñu yónnee autorité bi yónnee acteurs yi. def na avant kii di ñëw. profop kii ñëw na ca kii ñëw na ca ñoom ñi de façon prise ku ci ne maskaan discutant toog ñu waxtaan de façon précise invité des des professionnels invité des universitaires sur des thèmes précis ñu waxtaan ci acteurs yëpp waxtaan yi ñu ñu tënk def ay recommandation def ko ci ñetti forum benn rek ñu dese woon moom defaguñu ko mooy sur euh, le financement des partis loolu yëpp ñu jur ay recommandation ñu tëgg ko yónnee ko autorité yónnee ko ñeneen xam na nag amuñu moyen yi ñii am ba ba coow ba discuter fu ne waaye lii lu ñu wax <laughs> rek bu ñu waxee ñu xam ne wax nañ lii lu ñu wax rek uh-huh. ñun wax nañ ko te proposé nañ ko lu jiitu ba gën a sori sax ñoom li ñu wax foof foof foof dinaa la ci may document donc maa ngi ñëwaat ma ñëw ma mar tuuti may dem donc pour li audio européen wax man Aly Ngouille Ndiaye li mu leen tontu dama koy défendre ah hmm. xam nga lu tax hmm, ñoom dañoo def si observation da ngaa xool ñoom nee nañu c'est partenaire partenaires dañoo ñëw xool gis nga lu jaaduwul mais bu lu remettre en cause suñu parrainage neel parrainage bi kat li tax ngeen def ko jub na waaye bu ngeen ko doxaloo nii ak nii lu lay recommandation waaye bàyyi li nga jàpp li nga ngànk ah déedéet loolu xeebaate la kooku man nanguwuma ko nee ma parrainage bi comme ni ko Mour Fall waxee comme ni ko Babacar waxee ah suñ ko defee woon nii defee ko nii jubbanteeku nii nii ko nii mooy gën te loolu nag ñi ngi ci actuellement tey fii tey fi mu nekk ni on est en train euh, on est dans une commission cellulaire di waxtaan sur le sur sur le yaakaar naa ne bu ñu déggalee ñu toog waxtaan en technicien et en en expert électro bu baax mën nañoo génne solution yu baax yoo xam ne bu ko appliqué jàmm d'accord alors Mame Birame Wathie Union européenne bi moom moo audité le fichier électoral en tout cas jàpp na ci pour ñu audité ko euh, ci seen réew yi ñu bokk moo ko financé seen réew yu ñu bokk ñoom tubaab yooyu la ci ëpp am na parrainage citoyen am na parrainage des élus donc xam nañ bu baax parrainage est-ce que regret bi tey pour ñun sénégalais nekkul di yëkkati suñuy mbagg di wane ne euh, waruñoo wax lan la ñu war a def ak yooyu mais regret bi mooy pourquoi tubaab yooyu waxuñu ko avant ñuy dem élection présidentielle parce que li ñu wax nii suñ ko waxee te ñun ñëpp ñu d'accord ci ne euh, ñu wax ko fañ ko war a waxee ñu bañ ko wax li ñu wax dëgg la suñ ko waxoon xëy na avant la présidentielle ñu organiser ko neneen kon bu boobaa ci lay gën a garaaw Moustapha <laughs> ci les tenants du pouvoir parce que tamit bu ñu waxantee dëgg Euh, euh, euh, parrainage bi sénégalais yi wax ne dañ ko war a xoolaat dañoo bari c'est l'écrasante majorité donc bu union européenne ñëwee wax ne parrainage bi am na ay problème warul jaaxal kenn warul bett kenn man li ma dégg sax monsieur Déthié Faye di wax moom mooy le pôle le le coordonnateur du pole de non alignés mooy que l'union européenne daf ñoo confirmer parce que ñu démb ak bërki dem daan nañu wax ne système de parrainage bi baaxul war nañ koo xoolaat te tamit Moustapha il ne faut pas que ñu fàtte. ci mhm. ban contexte lañ ko adopté. man maa ngi bind je me rappelle. Oui. pour répondre ci question bi ko posé doyen sànq. Mhm. man le premier janvier deux mille dix huit laa bind chronique ma ni les prémices d'un passage en force de Macky Sall te je mettais l'accent sur le système de parrainage. Mhm. maa ngi wax ci biir article bi ne. instant yi nga xamante ni opposition bi ñu ngi dem tribunal di fekk ji euh, nu mu turati procès Khalifa Sall boobu Macky Sall ak ay nitam ñu ngi waxtaan pour xool nu ñuy mettre en place parrainage bi te loolu bu amee dina indi coow lu bëree bëri loolu c'était en janvier 2018 le 18 avril 2018 mais bu ñu koy vote fii député dañ ko doon voté policiers yi di dóor lacrymogène ci biti n'est-ce pas donc. kon wax nañ dañ ñoo dañ cee mënul dara. dañ cee mënul dara léegi nag léegi nag Union européenne tamit ce n'est pas rôle avant élection yi di am mu ne système de parrainage bi baaxul moom lu mu mën a wax mooy. te wax na ko sax gis nga ñu ngi ko ciy xarab mooy élection yi jàll mu gis ne li nga. lii nii très bien lii lañ ci jàngat te maa ngi liir benn phrase nii. Mhm. encore une fois Union européenne ñoom waxuñu ne na Sénégal def lii. xëy na ñoom. ñoo Sénégal war na. très bien ñu ne mener une réflexion d'ensemble sur l'opportunité de conserver en l'état les dispositifs de parrainage citoyen dispositif maanaam organisation bi ak application bi. Mhm. mais loolu wax dëgg yàlla les acteurs war nañ si mën a waxtaan ñu ne si parrainage bi kat gis nañ ne élection présidentielle bii passé bëri woon na ay jafe-jafe yoo xamante ne nii bu ñu toogul waxtaan élection locale yi di ñëw dina indiwaat yeneen jafe-jafe yu gën a garaaw. je pense que loolu amul lenn loo xamante ne ni garaaw na ci. xëy na ñoom dañoo bëgg def ci loo xamante ni amul coow ñu indi si coow. comme nu ma ko waxee sànq. Mhm. créer benn contre-feu nit ñi fekk si leen ci wax jooju. d'accord mais jarul wax. alors Modou Fall est-ce que li As Babacar wax sànq ne euh, dañuy prêcher le faux pour avoir le vrai est-ce que quelque part le pouvoir mënuñu au lieu que ñuy xalaat le le rapport de euh, de de la mission d'observation de l'Union européenne mënuñu ne lii ñu wax nii finalement mën naa jàpp ne main tendue la pour que le pouvoir même. trouver porte de sortie par rapport ak lii ñu jëm muy élection locale yoo xam ne loi bi bu soppeekul coow dina am. waaw loolu laa doon wax sànq xam nga dama ni euh, ñoom en réalité euh, ñu ci bari critiqué wuñu rapport bi dans sa globalité amu ci kenn ku critiqué rapport bi dans sa globalité. Mhm. boo xoolee ñuy wax ñëpp presque ci parrainage bi lañu wax. xam nga nee la sànq le ministre de l'intérieur moom li mu nanguwul mooy que ñoom ñuy ñëw di imposer à ce que une loi sénégalaise soit euh, abrogée par exemple mooy mhm. benn. keneen ki aussi euh, madame la présidente du conseil économique social environnemental madame Aminata Touré moom aussi fi mu waxee mooy moom. Mhm. yàgg na jiite mission d' observation. électorale fu nekk ci Afrique. waaye gis na ni ñoom ni ñu procédé nii respecté wul norme yi nga xamante ni nii noonu la mission d' observation électorale di doxe kon ñaar ñooñu kenn ku ci nekk li mu wax am na fu mu ko teg te fi mu ko teg xam-xam la ko teg boo xamante ni nii kenn mënu ko kenn kenn kenn mënu ko nuyee donc côté boobu je pense que amul problème mhm. du bible du courant ku ko lire ku ne da nga xam ni bari na ay incohérence xam nga wax nañ sànq incohérence yi bari na parce que tantôt je pense que maam Birame si joxe na fi sànq benn exemple boo xamante ni nii mm-hmm. bu ñu waxoon ci seen ay recommandation clairement que ni nañ nañ étudier waat parrainage bi euh, jëm cee jàngat trouver ci consensus xool naka lañ koy doxale kon bu boobaa problème du am mais c'est que mooy ñi utiliser ak termes yi utiliser ak ni ñu bëgg a imposer que élection yi di ñëw mm-hmm. xam nga ñu bàyyi parrainage bi dem ci noonu mooy mooy problème bi Euh, gis nga gis nga parrainage bi man li ma jàpp mooy parce que man bu ma wax ci parrainage bi du ma jël position wu acteur politique dama ciy intervenir en tant que ku xam li nekk ci biir parenage bi donc foofu toujours la fay positionné boo gisee ma ni parrainage bi Sénégal mën na cee joxe doxe stabiliser jeu électoral ci nit ñi deme ci jongante ba faw Sénégal aussi mën na ci mën na ci doxe bu nit ñi ragalee mesure yi ñuy jël comprendre nga ñu duggaat toujours ci élection yoo xamante ni toujours guuta da ciy am moo tax ci samay kàddu sànq ginnaaw bi ma waxee manquement yi ci am yëpp ma sérieux euh, li ma bëggoon a conclure mooy solution bi mooy dialogue il faut ñu waxtaanee solution bi mooy dialogue xam nga solution bi mooy dialogue mooy il faut ñëpp accepter ñëw xam nga woote nañ fi dialogue nit ñi ñëwuñu Union européenne aussi ci seen rapport bi am na fu ñu defee fu ñu defee erreur parce que dañu wax euh, échec gu concertation hmm. alors que en réalité parce que grand bi mën na ma seede ñoom suivre nañ processus su cadre de concertation bi de bout en bout ba rapport am ci. saa veut dire que concertation concertation kay mënul weesu ñii ne Aly Ngouille Ndiaye du organiser ñii ne mooy organiser par force waxtaan. jaar jaar mais mais mais loolu mais loolu bu amee toujours li ñuy tënk <laughs> mooy yoon rek mooy li nekk ci loi mooy li nekk ci texte yi mooy li nekk ci code électoral bi loolu moo ñuy tënk moo tax ma ni gis nga parrainage bi. Mhm. buñ ko organiser bu baax. mën na régler problème yu bari ci Sénégal parce que li may wax mooy il faut ñu introduire numérique bu ñu introduire numérique ci ci ci parrainage bi mm-hmm. ñu introduire ci loi portant des données à caractère personnel pour que ki nga xamante ni nii moom day dem di collecter moo xam le coordonnateur national moo xam le délégué régional moo xam le collecteur dem signer benn charte boo xamante ni dafay wone ni données yi muy collecter ci ci anam yii la koy utiliser ci diir bi la koy utiliser loolu hmm. buñ ko deful problème day am parce que man li may bañal Sénégal mooy que nit ñi di accaparer di garder ci seen ay biir kër di garder ci seen ay biir ordinateur ay données jàmbur yoo xamante ni toujours dañ koy mën a utiliser à d'autres fins te loolu très bien bala ñuy ñëw ci li euh, li euh, rapport bi wax ci conseil constitutionnel ak Sénat mais également le contexte bi nga xam ne moom la ñu nekk ci contexte du rapport bi ñëwee dañuy may Ramatoulaye Sarr ak suñu ay ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre à travers les réseaux sociaux notamment page Facebook bu euh, diine ak jamono quelques réactions ci débat bi ñu def nii après ñu wéy suñu waxtaan. voilà merci Moustapha xam naa buñ ci njëkk sax euh, question la boo xamante ne léegi nii rek laaj nga ko moo di euh, lu tax Union européenne ñoom ñu xaar ba léegi nii après élection yi ñuy doog a réagir ci tontu na ci voilà hmm. donc beneen bi moom tamit contribution la parce que kii moom li mu wax mooy l'Union européenne n'a di rien de nouveau seulement il a confirmé ce que les opposants et une grande partie de la population disait auparavant sur le parrainage mu ni ça fait partie du gâteau empoisonné qu'on nous a auquel on nous a fait goûter lors du référendum ils nous ont fait voter un ensemble difficile à éviter donc voilà merci à Walf également mhm. alors keneen ki aussi li mu wax mooy Euh, pourquoi Union européenne du ñu dem fële nga xamante ni moo di seen réew lijjanti li nga xamante ni moom mooy seen élection wala sax ñoom li nga xamante ni moom moo aju ci seen wàllum politique ak li nga xamante di fa xew euh, au lieu que ñuy ñëw fii di wax ci ay parrainage yoo xamante ni concerné wu leen ay euh, quelques kii la rek fi mu nekk nii contribution ak yenn remarque question bi léegi wax naa la ko très bien alors leen loo xam ne il faut ñu wéy ci ci ci ba léegi mooy li ñu tuddee corruption wax nañ ne am na ñoo xam ne ñoo Union européenne laaj na leen ñu wax leen ne ñoom euh, jaay nañu seen mu Moodu Fall wax léegi lu gën a garaaw mooy am na ñoo xam dañ doon dajale dajale ba bari le dem jaay As Babacar wala non jaay ñu As Babacar dem jaay Ramatoulaye Sarr wala keneen <laughs> est-ce que euh, du loolu mooy le sérieux euh, bi nga xam manque de sérieux bi nga xam ne moo accompagné parrainage que ay nit yaakaar ne mën nañ ko jaay ci junni wala ñaari junni. ci wax ni parrainage bi comme waxtaanee mm-hmm. moo génne lu mel noonu parce que en vérité loolu daf ci bëri xam nga sànq maa ngi wax la technique d'assèchement boobu. nga xam ni le pouvoir moom dafa utiliser ay moyens pour mën a n'est-ce pas par rapport ak ay projet et autres là pour mën a téye ay parrainage mm-hmm. mais effectivement li mu wax am na am na ci ñi nga xam ni dañuy fexe ba am un certain nombre dem jox ko ay nit ñu jox leen xaalis. man am naa ci li ma ci xam ci mm-hmm. loolu mm-hmm. nga xam ni li tax doublon yi bëri loolu am na ci mooy jaay parce que boo xamee ni diw jaay diw ma ma jaayoon moo jaay diw donc yàqu na yàqu nga <laughs> te yooyu am na ci moo tax ma ni euh, wax dëgg yàlla le parrainage pour day ñi nga xam ni dañoo xam ni dëkk bi nekk président de la république euh, pour dimbali sa réew euh, sacerdoce la te dafa am lu mu laaj le parrainage je le redis et ça c'est une position très claire dafa am li nga xam ne war nañ koo mën a waxtaanee dans le cadre bi ñu nekk pour mën cee dem waaye damay am toujours nekk samay réserve mhm. par rapport ak local bi nga xam ne ca la ñu jëm local bi moom xam naa dañ ko gën a waxtaanee ragal naa ne bu fekkente ni dañoo euh, tëj suñuy bët song ko rek bu koo def dina yàq sax ak yi nga xam ne am nañ ko ci gën a. solution bi repousser local yi. Euh, continuer waxtaan wala mënuñu ko mënuñu ko wax. parce que mënuñu ko wax. Hmm. parce que nous sommes dans un cadre très sérieux nga xam ne ñu ngi stabiliser ay terme de référence le pôle de l'opposition le pôle de, de, de du pouvoir ak les ak ñu ngi ci waxtaan te xam naa ne li gën pour Sénégal daañ ko def hmm. ndax climat bi ñu gis foofu wax dëgg yàlla war na mën a dur li nga xam ne dina dem ci kanam hmm. mais li ma bëgg wax toujours ci ci ci ci ci rapport bi li li li ñu wax ni li ca fay wax moom la ñu wax ñun dafa ñëw confirmer ñu mais naqaru xol bi ñu ci am rek ñu koy waxaat mooy mhm. wax dëgg yàlla société civile def na ci liggéey bu am solo ñun rapport public bi ñu génnee am na ci solo lool 66 page la peut-être bii nekk 77 pages donc amoon nañ de la matière ñu ci waxtaanoon avant bu lii génnee daañu xam ne lii yëpp waxaat la rek waaye wax nañ ko ba pare mais tamit li tax ñu ni dañu kontaan ci euh, vraiment ci mbir mi mhm. mooy di ci ñëw xam naa à part le parrainage amul benn banqaas bi nga xam ne laal na mbir mi mhm. te ŋàññuñu ko justement banqaas boo xam ne banqaas boo xam ne laaj na mbir mi euh, laal na mbir mi te ñu ko mhm. euh, ci yow la ñuy des as Babacar mooy d'abord conseil constitutionnel mhm. conseil constitutionnel euh, bi ñu réformer la constitution dem référendum et tout yokk membre yeeg wax a wax a wax a wax yokk ay pouvoir lu ne mais man bu may lire le rapport là li ñuy wax mooy conseil constitutionnel boobule est-ce que c'est une question qu'il se pose ñoom c'est l'institution appropriée pour lijjanti mbirum parrainage parce que nee nañ mënul nekk juge nekk arbitre alors que moom mooy compter euh, rapport moom mooy compter parrainage ba pare mooy rejeté alors su fekkee ne tubaab yi dem nañ ñoom ba osé nañu suñu conseil constitutionnel bii wax dëgg yàlla su fekkee ne moom la ñu yaakaar pour mbir yi leer dañuy nax suñu bopp je me dis euh, As Babacar que ni y a problème. non y te loolu damay joxe. un avis d'un petit expert loolu sama avis la man mhm. man gë jàpp naa ni le conseil constitutionnel même bu ñu demee bay waxtaan pour téye fi parrainage dañ ko dafa war a out par rapport à ça man xalaat bi ma ci am mooy mhm. peut-être que aller vers la mise sur pied d'une commission nationale de réception et de vérification du parrainage en dehors du conseil constitutionnel avec des démembrements yu ne au niveau de la base xam nga loolu lu muy jur. comme ni ñu comme ni ñu organisé Sénat xoolal caisse de dépôt et de consignation. bu nee ci dossier de con dossier de candidature bi da nga war a indi da nga war a joxe caution da nga war a am cutis. ñun dañuy dem régler ji loolu ca caisse de dépôt et de consignation ba am suñu cutis. dem yóbbu ko conseil ñëw verser ko ci biir. tey jii du ko verser conseil. duñ ko non dañ ko verser dañuy jël kayit bi indi ko. tey ji bu amoon cette commission là. au niveau national mu sens bi nga xam ne ñun ñi dañuy dem bëkkante ji foofu ba am am sa kayit foofu. indi ko boole ko ci dossier yi dina am sax possibilité de recours n'est-ce pas au niveau du conseil constitutionnel ba pare parrainage ni mu nekkoon élément principal du dossier alors que le dossier de candidature wax dëgg yàlla parrainage lu ndaw la ci par rapport ak yeneen yi mais dafa mujj nekk le principal nga xam ni dañ lay wax ni boo jàllee parrainage rek sa dossier baax na alors que war ngaa mën a jàll parrainage du loolu donc moi je pense que effectivement le conseil constitutionnel n'est pas du tout habilité à le faire et que peut-être ci xalaat yi nga xam ne moom la ñuy def man xalaat bi ma def sama xalaat personnel la mais peut que le pôle de l'opposition le pouvoir et cetera daañuy dem trouver que moi je pense que daal bu ñu ko génne woon ci conseil constitutionnel bi utal ko ab kuréel bi nga xam ni dangay ngay uti kayit googu pour mottali sa dossier ñëw déposer ko dina baax à défaut de sa aussi la Sénat bi nga xam ni prérogative am réy na lool moo ëpp ay article fii waaye nañuy tabbee ay nitam tax na ba pare ëmb seen sutura ba mën ñoo yëngatu ñoom it peut être mën na leen a renforcer je dis l' mën nañ leen renforcer peut être outiller leen pour que ñu defee ko fenn mais effectivement def ko ci biir conseil constitutionnel bi daal ragal naa ne bu ñu demaatee ci élection war naa mën ñax ñàkk gisu daaw ba nga gis nekkee ci waa conseil boobu ñu invité woon personnalité société civile ñu bokk ci ni ñuy wàññeek ñooñu ba nga ci génnee lire rapport da nga naan effectivement union européenne wax na dëgg mën nañ ko wàccee conseil constitutionnel euh, wala boog nga jàpp ne c'est liggéey la bu ñu mën a continuer di def waaw xoolee ni mu doxee ba ñëw laa ne soxlawul conseil mën naa ñàkk mooy li ma wax léegi te zéro juin boobu solution technique am na xam nga liste bu kii indi ay liste ki carte di jaay bu fekkee ne solution yi ñuy wax am na mu am une commission de réception des parrainages nga xam ne Moustapha Diop day ñëw ko kartam joxe ñu saisir koy parrainé diw ñu saisir machine bi interrogée le fichier électoral est en ligne euh, tout est en ligne les tous les autres fichiers des candidats des candidats à la candidature en ligne mu ne la baax na wala yow pare na nga ba pare wala lii ba rejeté su baaxee ñu émargé ñu jox la nga jël sa carte def sa poste dem soxla su ñu demee compté compté ba date ba jeex ñu ne ah Modou Fall mat le na région mat na diw mat la defal la nag un crise nga boole sa dossier yóbbu constitutionnel waaye nag dafa laaj une organisation à la base mm-hmm. garantir la transparence ñëpp foofu la cooli ne foofu la cooli ne commission yi par région ou par département ñoo xam ni ñu koy organisé ña fay nekk mhm. parti yi ne fi sénat ne fi société lég ñëpp ne fa mu wóor la ku ñëw ko saw carte kenn du la influencé yaa ñëwal sa bopp yaa pare ne ki ngay war a pare ne su baaxee baax na su baaxul ñu la dellu jox la sa kayit nga dellu bu jeexee ba jeex ñu calculer ñi nga xam ne mat la nañu région mat la nañu lépp et cetera rempli nañ critères yi ñu def leen crise ñu boole ki seen dossier dem jàmm na jooy moo tax ma ne solution technique am na hmm. nanga ko waxtaanee ba juboo ci nag te réaliser ko nag réalisation nag là c'est des problèmes techniques war na war na mën a nekk da lu mën a nekk la léegi hmm. conseil constitutionnel euh, li mu wax lu leer la am na côté boo xam ne bii mënuñu la faa nga ni parce que bi cool yi bari ba bari dañu ne ah attention ñun dañoo concevoir suñu logiciel logiciel bi ñu concevoir dañuy lire un fichier électoral bu ñuy jox mettre ñu à jour de ñun euh, euh, politicien yaa ngi naan ficier bi baax na baaxul version bi baax na bàyyi ñun amuñu fi xam-xam dañuy laaj daal ficier ñu jox ñu jox ñu daal di jël traité yéen ngeen indi seen i parrainage sur sur clé ñu lire comparer mais nag logiciel ba ñu def itam daf c'est un logiciel benn waaye nee na on gagnerait à humaniser logiciel logiciel bu nangul benn erreur technique kenn musu ko gis ci àddina <laughs> logiciel boo xam ne bii da nangu doublon te technique kenn koy donc est-ce est-ce que wax li am rek mooy ne élection présidentielle bii fal Macky Sall mooy njiitu réewu Sénégal ba 2024 ah, kenn mënu ko dindi waaye nag wax dëgg yàlla baaxul ah est-ce que ko waxee noonu rek mu leer élection bi baaxul mënoon naa gën a baax <laughs> parce que nag wax dëgg yàlla parrainage bi am na fa ñeneen ñu ma gis man ma fa nekkoon ay candidats yu fa mënoon a génn constitue de la nature de leur dossier mhm. du ma lim nag ay tu ñoo xam ne ñu wax dëgg yàlla am na ñett ba ñeent yoo xam ne yi mënoon lañu caa génn parce que daanaka remplir nañ conditions yi te ku xool seeni dossier de base. Mhm. comparé ko ay réseaux yu bari dana jàll ñu mën a jàll. d'accord alors euh, man mii de point rek. léegi parce que euh, le contexte du rapport également il faut léegi logiciel boobu ma la wax itam day benn problème boo soulevé. Mhm. amatul kuy kuy dajale ay un million de candidats boo ñëwee. Mhm. Euh, keneen ku ñëw ne damay parrainer Babacar Gueye ñu ne la Babacar feesal na mat la dam demal parrainer keneen. bu ko defee amutul kooka dana mën a pare rek keneen waaye fii da nga gis koo xam ne ñoo xam ne ji non seulement dañuy jël sa pare téye sa carte d'identité ba pare mm-hmm. delloo delloo ko del gis nañ fi Moodu Moodu nekkoon na ci base bi gis nañ ñu ne mm-hmm. ce qui fait bi nanu koo waxtaanee foofu fi may daaneele nag mooy tey fi tey am nañu yaakaar ci commission cellulaire bi ñuy liggéey mm-hmm. war nañ ci mën a poser problème yu yëpp bu fekkee ne nag la ñu fay waxtaanee te ñun ñëpp ñu juboo ci bu demee ci kaw ñu nangul ko yaakaar na ne war nañu am solution waaw ah, ñu nangul ñu ko la après nuñ koy def waaw bu ko defee war nañ cee war nañu man a ale vers un code consensuel qu'on pourrait même appeler code consensuel hmm. bu baax mam bira waj dafa am loo xam ne euh, defe naa ci as Babacar laa ko njëkk déggee bari na ay ñu doon liggéey ci élection yi ñu ko répété avant la présidentielle lu bare bare bari mooy euh, Macky Sall préparer une victoire technique ou électronique répété nañ ko plusieurs fois man mii wax def naa ci entretien pour ñu expliquer ma qu'est-ce qu'ils veulent dire mais su ma dégloo li ñu wax ci taabal ji ak li euh, musu daaw fekkee ca compte baag yëpp dama naan quelque part ñii li ñu doon wax mooy li am quand la victoire elle est mais elle a été euh, plutôt électronique oui, technique oui tout à fait te xam nga man Moustapha mhm. informaticien yi moom mooy lii sa euh, waaye doon wax rek science sans conscience nekk ruine de l'âme mhm. te élection dëkk bu toll ne États-Unis gis nga seen élection yi passé li si wax na espion russe attaqué nañ seen kër dëkk bu ndaw bu toll ne Sénégal ñu jël lépp jox ko informatique ne dañuy génne vérificateur man loolu sama xel da ciy tey mais même bu dee dañuy utiliser euh, nu mu durati ñoom système bu ñu wax parce que Sénégal tey mënuñu on ne peut pas se trois mois ñu nekk ko ci campagne parce que présidentielle bi passé bu doon sax pétrole baa ngi fi ba léegi waaye nee nañ timis yóbbu na ko il faut ñu nangu kon di pendant trois mois mais sénégalais yi duñ liggéey te c'est ce qui s'est passé ci élection présidentielle bi passé pendant un mois ñuy euh, wër parrain pendant un mois ñuy vérifier après un mois ñuy campagne euh, kii ah, waaw donc trois mois. Et heureusement après amul que contentieux électoraux yi bu ñu ko bëggoon a commencé di gérer ça nous prendrait. waaw waaw waaw donc tey jii vraiment. y a tellement tellement tellement de griefs yoo xamante ni mun nañ koo soulever si système de parrainage bi te tamit Moustapha comme nu ko waxee sànq rek ñoom bi ñu defee euh, système bi teg ko ñi ñi manifester président Macky Sall forcé na dinañ ko teg ñëpp lu ñu xalaatoon mooy ñii dañu bëgg a éliminer candidats yi nga xamante ni ñoo leen nar a sonal pour que président Macky Sall ñi nga xamante ni ñoom lay janool et c'est ce qui s'est passé en définitive léegi nag ndax dañ koy defaraat ndax dañ koy kiyaat loolu c'était l'autre problème naa bàyyi doyen ñoom ñu discuter ci mais de toutes les façons ñoom bu dee dañ ciy waxtaan bu dee dañ ko moom nee na mënoon na gën a baax du ne na gën a baax ci gën a baaxal boobu bu nekkee ñoom dañu war a waxtaan pour gën ko baaxal yaakaar naa ne ñu xool tamit ci temps bi nga xamante ne dañ koy consacrer parrainage boobu mm-hmm. lu baax a baax la parce que c'est comme si ñaari élection mooy am élection parrainage bi ensuite élection présidentielle mm-hmm. alors Mourval yaa ngi wax sànq ne am na ay obstacle majeur yoo xam ne bu ko dindee parrainage yu ci ayib est-ce que man nga toog nii informaticien nga liggéey nga ci ci ci mbir yi mën nga ñu wax ne élection locale yi wax nga sànq ne techniquement mën na nekk mais fii ak fii lañ mën a dindi pour mu baax. waaw man ma jàpp ni. Mhm. bon ma répondre ci benn euh, ki parce que sànq ba léegi maa ngi dégg ñu naan est-ce que Macky Sall gagné je pense que aussi bu ñu confondre li xewoon avant. ak le jour du scrutin. mais duñ ko waaw moo tax ma ñëw le jour du scrutin nag. quoi <laughs> qu'on puisse dire. c'est les Sénégalais qui ñoo yi ñoo génn. dégg la jóge seen ay kër. dem ci lieu de vote yi dem ci bureau de vote yi sànni seen carte le président Macky Sall majoritairement mu gagné à pour cent ça ça n'a rien à voir avec le parrainage. cela veut dire que côté boobu moom. il faut mm-hmm. Sénégalais yëpp nangu ko d'ailleurs observateurs yi ngay dégg yëpp boo xoolee le jour du scrutin. Mm-hmm. même man sax personnellement j'étais parce que pour la première fois mu dugg di voter gis ni lieu de vote bi euh, agent de sécurité dañoo dañoo dañoo dañoo génn ñëpp ñu ñuy vote rek boo dugg ci lieu bi dangay ngay wane sa carte nationale d'identité dooga dugg donc côté boobu moom je pense que nañ nangu amul problème waaw njiitu réew mi je parle du scrutin non d'accord mënuñu ko séparer non waxuma processus bi <laughs> mais xam nga lu mu lié lié processus bi lu mu lié lié du tere mhm. yow mii Moustapha Diop boo duggee ci mbañ gàcce ki nga bëgg a votel nga votel <laughs> waaw mais mi ngi noonu léegi nga ko ni nga ko nangule nag ni nga ko nangule <laughs> war nga koo mën a nangule n'importe quel Sénégalais man foofu laay waxee uh-huh. parce que moom comprendre li mu ko wax parce que bu duggee ci mañ gàcce dana votel ki mu bëgg a votel <laughs> yow noonu kii grand noonu et hmm. cetera maam biram aussi bu duggee kenn mënu koo teree votel ki mu ak lu mën a xew ci parrainage bi ki mu bëgg a votel éliminé nañ ko waaw ah, non mais waaw <laughs> mais xam nga aussi quoi ko euh, nañ d'accord ni <laughs> ñu parrainage bi éliminé c'est vrai que manquement am na ci hmm. mais am nañ ci ñu réussir ñu réussir lan moo tax ñu réussir c'est parce que maintenant techniquement c'est possible mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ñu yegg ci man li ma jàpp mooy par rapport ak déjà conseil constitutionnel parce que jàpp naa ni conseil constitutionnel def nañ ñaari erreur ci li fa xew quoi ni mu déroulé woo. Mhm. bu njëkk bi mooy lu fait nga ñëw joxe sa clé USB bàyyi ko fa même bu doonee dañ koo sele am ñu ne dañ ko copier ci machine. nga demaat ba après ñu doog laa woowaat ñëw doog def contrôle bi. Mhm. kooku c'est une bu ñu organisé woon li ñuy waroon a def mooy. Mhm. ku ñëw jour bi nga ñëw ñu indi sa clé ñëpp toog même si c'est 48 heures solution yi laay wax de ñu mën a déroulé woo nga xamante ne ngay indi sa clé. toog ñu dugal ko ci machine bi. def contrôle bi résultat yi ci am nga gis ñeneen ñu aussi nga xool ni muy demee ñu dugal ci machine mu génn résultat yi ñu gis ñëpp kii donc ça veut dire que loolu vraiment transparence lay indi candidat yëpp ay teew ci salle bi kenn ku ne yore sa clé mais defuñu loolu da nga doon joxe sa clé dem sa voilà am nañu ni dañu copier seen clé ci machine bi ko kon loolu problème la donc solution bi mooy da nga yore sa clé ñëw ñu contrôler ñëpp toog ñu contrôler clé yi bu fekkente ni dañuy jël pose ñu demandoo pause bu ñëwee ñu ñëwaat continuer liggéey ñu contrôler ñëpp ci kanamu ñëpp ñëpp gis muy benn logiciel bi ñu contrôler aussi c'est vrai que am na lu nit ñi xamul mhm. ma wax ko tey gis nga conseil constitutionnel avant ñu utiliser logiciel bi mhm. dañu woo ay professeurs titulaires des enseignants des universitaires des informaticiens mhm. ñu cibler leen ci biir réew mi ñoo xamante ni bokkuñu sax defuñu sax politique ñu ñëw ñu présenter leen logiciel ñu présenter leen logiciel bi ñu mhm. leen logiciel bi ñu bëgg a utiliser donc dëgg leen baax li may wax c'est important parce que loolu nit ñi mësuñu ko mësuñu ko wax fenn mhm. ñu présenter leen logiciel bi leen ndax logiciel bi ñu bëgg a utiliser baax na wala baaxul mhm. ñoo ñu contrôler ko xool joxe seen ay suggestion suggestion nag moom du ñàkk parce que suggestion bi ci ëpp solo informatiquement parlant mooy le fait que logiciel bi donc taxawaayam dafa difficile révélation pour <laughs> révélation est-ce que est yooyu waxoon nañ leen ne Euh, machine bi dafa ñàkk humanité comme ni nga ko waxee waaw moom laa wax loolu laa wax moo tax ma ne dafa ñàkk humanité boobu ah, dafa ñàkk humanité mm. avant ñu dem ci parrainage bi di déposer kenn ci ñoom du ma cité wax na ma ko kenn ci ñoom c'est pas un politicien oui, oui, oui, voilà donc universitaire professeur titulaire machine bi bu ñu ko joxee mbir yi dina ko gàll nee na ma contrôle bi dafa sévère ah, waaw contrôle bi dafa sévère moo indi loolu mm-hmm. Modou Fall avec benn L données électorales am yi numéro carte d'identité mbaax numéro carte électeur am mbaax ñu éliminer ko kooku ça n'a pas de sens et puis waxuñu yenn champ la ñuy contrôler réellement c'est au dernier moment ñu xam ni prénom dafa compliqué ñu éliminer ko mhm. et cetera donc yooyu yëpp ay éléments de discussion la war a doon parce que kay de charge logiciel bi contrôler il faut ñu teg ko ci table ñëpp étudier ko ñu présenter ko ñëpp indi ay échantion kenn ku nekk ñu ne la indil benn fichier de dix hmm. boo xamante ne am yu baax am yu bon ñu dugal ko ci machine bi ko comme ça mu jox la nga xam effectivement kon bu ma dugalee électeur bu baax dana bu baax la bu ma hmm. dugalee électeur bu baaxul dana ma wax ni ma bu baaxul kon li li li parrainage bi jur yëpp sénégalais yi xamu enfin ñi nga xam ne ñoom la ñoo ngànk élection yi xamoon nañ ko dañ koo waxul parce li nga wax ni euh, su fekkee ne waa conseil waxoon nañ leen ko xamoon nañ ñoom a priori que ne bari na ci candidat xam du dem waaw parce que mais parce que mooy moo rejoindre li ma la wax rek. parce que ñi ci bokk acteurs yi. nekk mhm. ay candidats testé wuñ ko ci seen kanam ñu gis. c'est un vrai problème loolu mooy vrai problème bi. voilà donc yooyu nag bu ko réglé woon. Mhm. ba ñëpp d' accord techniquement parce que affaire bi c' est pas très compliqué. parce que confiance bi rek ak transparence bi la ñu indi mooy li ñu wax sànq confiance ak transparence bu ñëwee rek parce que ki fa bàyyi clé moom wan ko ginnaaw. wax dëgg yàlla ëllëg bu ñu ko contrôlé mën nañu est ce que modifié wuñ samay données. as Babacar dinaa la takki ne un peu ce que finalement ñu ne woon élection yi jërul dem da ngeen di sonal seen bopp rek bu ñu dégloo li ñu wax yëpp waxuñu woon dëgg na quand même jaru ko woon. ndax de liñ wax ci machine boobu kii wax ko kële confirmé ko euh, daanaka man su may déglu dama naan élection yi jaru ko woon. déedéet xam nga. Mhm. tey jii ñun ñooñu ni jaruñu ko ba pare toog. ñun ñi nga xam ne dugg nañ ci am nañ ci jàngat yi nga xam ne tey jii. d'accord leer nañu ni am na ci ay mbir yi nga xam ni suñ ko réglé wul dootuñu ci dem ay élection maanaam tant que le président mhm. de la république mu ngi arc bu wu ci son directeur de campagne Aly Ngouille Ndiaye il n'avait pas de directeur de campagne pour am hold-up bu leer bii mu def tant que mu ngi accroché wu ci moom élection dootu no du ñu dem élection élection tu nekk cest dire que ça c'est très clair donc ñun ñu ngi natt mhm. opposition bi ñu ngi natt euh, président Macky Sall ci ndax soppeeku na wala soppeekuwul ci nan lay téyee Aly Ngouille Ndiaye ci processus ci processus mais bis boo déggee Moustapha nii mhm. d' accord na ci Aly Ngouille Ndiaye taxaw yi ne le dem régler ji sécurité bi sécurité bi utal ñu une personalité indépendante comme ni ñu waxtaanee ba jël ñeneen ñi ñu def ko jàmm ni ñooñu parce que tey jii xam nga mhm. tey aveu de taille la def waay moom parce que dafa far ak Macky parce que dafa subi tuuti di ñëw fële moom xam na professeurs yi xool affaire yeeg xam na li manqué kii yeeg mais yaa xëyti xam nga njuñ njaaj tamit Moodu fa la commencé cest dire cest dire booba demagoo ci booba demagoo ci demagoo ci moom en tout cas en tout cas loolu bu fekkonte tey ji a xereñ a xereñ tey ji ñi nga xam ne ñu ko defee ak professeur yi mën nañ ko defee ak informaticiens yi ne ci yéen yi ne ci parti war nañu ko def ak ñun c'est-à-dire que bu fekkonte ni dañoo bëgg jàmm mm-hmm. suñu informaticiens yi ñu yor te ñu xereñ lool ñooñu nañ leen woo ñu xool loolu avant ak ñëpp beneen bi mooy yeneen rëq-rëq yi am ci parrainage bi gis nga ñun on a des informaticiens de qualité. Mm-hmm. am na ci par exemple benn ay ay rejet yi nga xam ne dañu ko defal ay reetaan jàpp ñu ñun leer nañu ni suñu mille cent 820 personnes yu ñuy déposé amu ci kenn ki nga xam ne discriminant bi manqué na benn chiffre 17 chiffres. Mm-hmm. vous êtes des informaticiens je ne suis pas un informaticien mais je sais que les informaticiens que nous avons nous que ce que nous avons déposé véritablement mais bañ ñu joxee suñuy rejet. Mm-hmm. am na ci ñi nga xam ne dañoo manqué ay chiffres te li ci gën a doy waar mooy le le liñ jox ci clé mm-hmm. ñu copier ko déjà c'est vrai dugal rek allez gis nga sa clé ah daal di copier doo ko dugal ci benn enveloppe allez boole à la prochaine noonu la demee ah da ngay ñëw andi sa clé ñu dugal ah, xoolal ñu paree dugal ci fiche dañ mais loolu jox nañ ko mais ko defee noonu dugal rek noonu la demee ah noonu de balaa ñuy sele dañuy dugal ni la xaaral ñu xool li nga def def li ñuy def doo ko dindi doo ko sell ni la après daañu vérifier mais loolu mooy wax mais donc loolu ñu leen jox ci électronique dañu leen ko jox en version papier bien ordonné mm-hmm. nga xam ne même ku ñu rejeté woon foofu texte bi dafa wax ni da ngaa war a def ñëw fi xool ko boo vérifier di nga xam lan moo ci nekk mais xooluñu loolu donc il y a énormément de problèmes à ce niveau la donc franchement mm-hmm. euh, mu ngi wax tamit ni vraiment Sénégal bi et cetera non c'est l'argent argent moo rek la affaire bi ñun su suñu rapport bi ñu def gis nañu téeméeri commune ak juróom ci Sénégal mhm. yi nga xam ni le nombre ñi fa voté dafa ëpp largement la population qui a 18 ans et plus je te donne Bokki Dialoumé de Abdoulaye Daouda Diallo waaw Bokki Daouda Diallo je te dis non attends Modou il y a il y a 13 000 après il va 13 000 habitants mhm. source ANSD 13 000 habitants de Bokki Dialoumé qui ont 18 ans et plus treize mille dix huit mille personnes ñoo fa voté Gorée gii mhm. Gorée mhm. ña fa voté ñoo ëpp population gore donc effectivement les gens dugg nañu voté mais c'est des gens qu'on a déplacés avec de l'argent yóbbu leen ñu voté ji cest dire que c'était des votes téléguidés non je te dis on a cent cinquante commune cent cinq communes yi xam ne listées où on donne les chiffres de l'ANSD mhm. de dix-huit ans et plus jox la la population électorale mu weesu ko totalement xam nga loolu problème la donc hold-up bi dafa leer leer bi nga xam ni lii dafa ñu confirmer moo tax on n'a même pas jugé nécessaire de faire des recours. Modou Fall scientifiquement lan mooy expliquer li muy wax nii parce que nee nga scientifiquement ça s'explique. non ça ne s'explique pas. oui ça ne s'explique pas d'accord parce que gis nga li mu wax nii. Mhm. parce que Gorée je pense que exemple boobu nit ñi joxe woon nañ ko. Mhm. population bi ña fa dëkk. ñu mën leen a recenser. ak Goréens yi dëkk biir Dakar di voter Gorée di continuer di voter voter Gorée loolu nit ñi wax nañ ko c'est déjà dépassé. loolu tax na mu gën a dem di voté ji gore mu ne une tonne non attends <laughs> attends non dama lay expliquer par rapport ak nombre rek. li may wax même bu doonee deux personnes damay expliquer du raisonnement mhm. scientifique boo xamante ni mën nañ ci basé wu pour wax loolu. parce que xam nga bokki jaww bi. Mhm. par exemple. boo ko demoon bokki jawlu be mhm. mais nit ñi mën na mën nañ mën nañ jóge ci dëkk bi ñëw Dakar. am y a les étudiants am ñeneen non exemple lay jox il faut ngeen comprendre li may bëgg expliquer. recensement période bi muy am nit ñi mën nañ bañ a nekk fu ñu dëkk maam Birame waa Diourbel la dëkk man Diourbel laa dëkk mhm. mais bu ñu def recensement Diourbel ñun mën nañoo bañ a bañ ñoo mën nañoo bañ a compter foofu ci population bi mhm. parce que tout simplement euh, période bi ñuy recensé nekkuñu fa. mais est-ce que Sénégalais yi déplacé wu di voté ji seen seen dëkk bari nañu bari waaye bu war a tax. bari nañ euh, chiffres yi nañ parce que mhm. li koy prouver mooy boo xoolee Dakar le jour du scrutin. d'ailleurs la beneen exemple. mooy gis nga Médina. Euh, exemple boo xamante ne nii ku xam Medina rek dina ko xam xam nga Medina tey boo doon def rue 11 rue 8 zone boobu ñooñu ñëpp ay bawol bawol la Jurbel lañ dëkk te ñooñu ñëpp bu élection jotee ay bis la ñuy arrêté ay bis laa wax de waxuma benn bis waxuma ñaari bis ay bis la ñuy arrêté pour transporter nit ñi pour yóbbu leen donc hmm. loolu du argument boo xamante ne nii mënees na koo wax pour justifier loolu xam nga waxoon ngeen ko génne am na point yoo xamante ni da ngeen di accepté que ni analyse bi bu jëmee foofu rek du baax parce que li tax bu jëmee foofu du baax mënoo basé wu ci population ak le nombre de votants wala nombre d'électeurs mhm. pour pour wax dara pour wax loolu d'accord voilà alors il non il faut grand bi d'accord non il faut il faut d'accord ak yow loolu rapidement rapidement avant ñu voilà joxal grand euh, Moustapha <laughs> mhm. pour prouver véritablement que li mu wax daañ leen jàppaat amaat dëgg ci ñoom mhm. gis nga audit du fichier bi ñuy bëgg def sur place sur sur place et sur pièce n'est-ce pas dañ koy lëkkale dañ koy lëkkale effectivement avec les dem avec les données démographiques ak état civil bi parce que lañuy ñuy def lépp ca foofu la nekk moo tax mbir mi dafay gën a leer te daañu ci dellusiwaat par rapport à ça. parce que aujourd'hui s'il y a presque deux cent mille personnes. Mmh. qui sont dans ce cas la où il y des communes yi nga xam ne population bi fay voter dafay ëpp véritablement la population électorale presque de quarante mille personnes et de trente mille personnes et tu et tu me dis que tu me dis que ce sont des bus beneen bi mooy beneen bi mooy nga xam ni nga xam ni te ñu xam ni à quelques jours des élections à quelques jours des élections ñu génne nga xam ni wax nañu dañ leen defal ay duplicata waxuma loolu loolu nga xam ne uti nañ ko jour élection bi à 11h 11h. Mhm. ñu signé ab ab parce que tamit ñooñu comme dañoo war a voté ji à 11h ñu génne ab message. Mhm. pour permettre à ces gens là qui ne sont pas dans ces bureaux de vote là. de voter dans des bureaux de vote. d'accord alors Youssou Daw très rapidement sur euh, li nga xam ne moom la rapport bi wax ci euh, Sénat parce que tudd nañ conseil conseil mais wax na également. ci ci Sénat euh, li ma étonné moo di Euh, daanaka acteur yëpp doon nañ interroger wu ci finalement lan mooy rôle mu mel ne dafa wuute trop ak euh, bi ñu daan gis avant élection yi parce que daanañ nga ko daan sentir ne am na rôle muy joué Union européenne ñëw confirmer ne très franchement Sénat boobu lañ ko sant nekku ci trop. waaw bala ba ñëw ci may ma rek quelques lu ma waxaat tuuti ci euh, parrainage bi conséquence xam nga ni mu daan mhm. boo indee sa clé jafe-jafe bi fi nekk du loolu. clé bi kenn ko xoolal parce que dañ koy sele mais dañ ko doon wàcce ci discours conseil def test yi xoolal la ñaata enregistrement nga am ñaata région nga am c'est ba tëj ko pour ëllëg bu ñu koy liir suñu la ko affichilaté ne la lii ak lii nekkoon ci clé nga ne waaw ñu def mais nag mhm. comme ci discours conseil constitutionnel ko doon def ma nga ca c'est-à-dire que le contenant est peut-être mais le contenu encore dans le foofu nag euh, euh, suñ déggoon mhm. dañ Babacar Gueye mii di clem ci ci disquam lañ koy wàccee testé ba pare sele clé bi mu yóbbu mu yóbbu ordinateur mais ba tey euh, deuxième problème bi aussi mooy bi ñuy def démonstration wu logiciel bi wax li ci nekk maa ngi foon mhm. mais xam nga dafa yomb ci ñëw sama logiciel Euh, euh, enregistrement bu ñu lire te conforme le fichier bi de la curiosité ku am doublon ma c'est bien mais terme de référence financière jeunes bu jël duggoon xool ko ba xam la ca ne ku nekk indi sa benn jeu d'essai mhm. avec des erreurs exprès de double exprès test ko ba mu baax daal di valider mais lool nag amu ci woon wax dëgg yàlla moo tax nag mën nañ ne ah la ci biir logiciel ba c'est le constitution mën nañ leen a nangul hmm. ne euh, loi bi lañ programme waaye ay la yowén TDR yee ko basé ak li ci biir yëpp nag ay la yowén um bien ci Sénat nag euh, le euh, Sénat wax dëgg yàlla boo xoolee rôlam ak prérogative am lu baax lool lool lool lool la ci élection ci suñu démocratie hmm. waaye nag Sénat est-ce que dooleel dañ ko doole jëm war a am est-ce que bàyyi nañ ko ki prérogative mu liggéey na war a liggéeyee parce que bu ko defee ñun def nañu ay tournée ci seddaay yi mais gis nañu ci seddaay yi lu bari su baree baree bari moyen ya Sénat war a am pour mën a def liggéeyam ni ñu ko defee fii ci euh, code électoral bi mm-hmm. joxe su ko kon nag ah liir naa sax euh, ci journal ci ci ci rapport bi Union européenne def naan euh, la Sénat c'est le bras armé de de de l'administration c'est ça la France mm-hmm. foofu aussi ils sont allés trop loin est-ce que xam nañu condition yu Sénat di liggéeyee et pourtant ñoom wër nañu fa parce que ñun bi ñu def suñu tournée rencontré nañ dans les Sénat fu ne rencontré nañ leen fa wa am na lu ñu waroon a ci Sénat mhm. ak ak manque de possibilité yu waxtu souligner wuñu ko kon nag ce que je demande mooy Sénat nañ ko yokki prérogative euh, prérogative bi bu ñu ko yokk sax baax na mhm. nañ ko dooleel te may ko autonomie mu liggéey li nga xam ne moom lañ bind ci carré bi su ko defee day mottali bu baax parce que l' aspect contrôle extrêmement important man maa ngi fàttaliku euh, audit bi ñu fi njëkk def mm-hmm. am na beaucoup de dossiers qu'on yoo xam ne jël ñu la en compte ci euh, euh, dans la mise à jour du foncier parce qu'il manquait simplement le tampon de la CNA qui obligatoire dans document de base avant ñu koy saisir mm-hmm. c'est une très bonne chose et pourtant bi ñu xoolaatee dañu effectivement waajee fàtte woon def cachet yi mais bi mu ñëwee ne le ministre a donné des injonctions gars te duñ ko traité parce que dans les textes on dit que il doit avoir le cachet de moo tax ma ne Sénat ku ko bàyyi prérogative jox ko ay moyens bàyyi ko autonomie te bañ ko influencer dara mu liggéey nii ci cadre bi estime que c'est une très bonne chose d' accord alors euh, Mame Birame wàcc euh, rapport union européenne bi wala boog de mission d' bi union européenne dafa wàcc ci contexte boo xam ne euh, Sénégal daf leen fekk ñu nekk ci beneen débat am na sax ñu wax ne nañu bàyyi waxu rapport union européenne boobu te wax ci Ali ci am na ñu ne rapport bi le pouvoir daf ko bëgg a jël pour def ko benn contre-feu par rapport à l'actualité bi nga xam ne moom moo moom moo soxal sénégalais yi tey muy euh, l'affaire des contrats pétroliers et gaziers yi nga xam ne dafa mel ne bés bu nekk ñu am xew lu bees luñ ci gis est-ce que tey dañuy euh, def comme nii ñu ko defee tey toog di wax ci rapport bi wala en tant que qu'analyste boog da nga yaakaar ne le rapport là nañ ci passer rapidement wax ci àllikala gi comme ni ko ñeen ñi di waaw Moustapha boo bàyyee xel. Mhm. Euh, Union européenne bu ñu génnee seen euh, rapport mission bi. Mhm. est-ce que bàyyi nga xel ci une soleil bi. waaw dañu bind élection libre et transparente. Mhm. loolu loolu moo nekk la une du soleil. soleil bu yaa xam ne une élection libre et transparente. man dama jàpp ne bu nekkuloon ci pétrole bi. nguur gi ci loolu rek lay jàppoon. une élection libre et transparente parce que ñun dañuy traité ay rapports yu bëri yuy génn mhm. muy nekk ay doing business ay banque mondiale ay human rights watch mhm. mais souvent euh, nguur gi ni leen di intéressé même bu nekkee vingt points la mhm. benn point rek baax ci dix-neuf yëpp ñu leen di xarab duñ ci wax ci benn point boobu rek la ñuy mooy def ko seen cheval de bataille bii dama ne boo gisee ñu siy wax lii yëpp bëgg fi créer benn genre face à face bu existé wul entre état bi ak union européenne. état bëgg fi mer mer jëme ci union européenne. waaw di mer merlu. c' est parce que peut être feneen la ñu meree xëy na bëgg tamit nit ñi def lii un véritable problème pour continuer di ci wax alors que nag. effectivement. sénégalais yi même da nga koy seetlu ci réseaux sociaux yi da ngay publier benn article boo xam ne waxul ci pétrole. Mhm. mais gars yi na la commentaire ci suuf wax ñu ci pétrole bi. <laughs> kon tey defe naa dinañ ñu wax leen ci pétrole bi. waaw donc <laughs> pour dire que véritablement non c'est que nag scandale bu toll nii sénégalais yi xamuñu ko. li ci mujj a bees mooy euh, diggante euh, les enfin les conseils du président les conseil occultes et les conseils officiels muy euh, kii wax lii kii ne waxu ko. dans un premier temps euh, le Aliou Sall lui-même nga xam ne moom mooy le principal concerné dans cette affaire là wax ne musul jot 46 millions comme ni ñu ko waxee dans cette affaire là. Euh, démb 146 euh, millions bien sûr 250 000 dollars. ak a bëri alors démb euh, El Hadj Kassé ministre conseiller chargé de la communication de la présidence woo ko nu la neexe dem sur le plateau de TVS une télévision mondiale regardée à travers le monde surtout dans le monde francophone mu wax ne effectivement. xaalis boobu Aliou Sall encaissé na ko mais daf ko encaissé ci consultance ci wàllu agriculture tey jii yaa xam bay saaga ko saaga yu tooy mm-hmm. waaw c'est xam nga euh, Moustapha euh, statut wu euh, El Hadj Kassé mm-hmm. dafa am importance mënuñu koo bàyyi noonu parce que tamit xëy na le président de la république désigné wul officiellement un porte-parole mm-hmm. mais El Hadj mun nañoo wax ne mooy wax ci kaddu président de la république donc bu demee ci télévision bu toll ni TV5 wax fa wax ju toll noonu yaakaar naa ne war na mën a tiital sénégalais seen biir. Mhm. parce que tey jii nii lii li muy gën a wone mooy. parce que bu euh, documentaire bi di doog a génn ñoom seen ligne de défense moo nekkoon. Mhm. ñii dañuy parparloo ñii dañuy ñëw pour déstabiliser dëkk bi liñ ci wax dara nekku ci dëgg Aliou Sall ba mu defee point de presse am effectivement dafa wax ne moom mosula di dégg mosula laal xaalis boo xamante ni kii na. Mhm. léegi bu ñu ñëwee porte parole président la république. ñoom wax wax ju mel ni non seulement day confirmer euh, BBC mhm. mais Aliou Sall mi nga xamante ne ñii ñi ngi doon laam-laamee naan est-ce que sax moom dina wax benn yoon dëgg mais day wane ne moom lépp lu mu ñu wax rek ay kàcc la parce que effectivement euh, nu mu turati euh, deux cent cinquante mille yooyu nga xamante ne nii. deux cent cinquante mille dollars Elaj Kase wax na ko. Mhm. mais man dama jàpp ne c' est parce que daf ko bëggul a mettre en relation ak pétrole bi moo tax mu wax ci waxu mais agriculture kan moo ciy fay deux cent cinquante mille dollars pour consultation ak Franck Timis kañ la dugg ci agriculture bay fayee consultation pour kii donc je pense que mhm. xëy na dafa doon jéem a euh, euh, nu mu tuddati dévier un peu le débat ba far nag dugal waa ji. mais am na am na ñu ne eh, am na eh, eh, moo ko tey ah am na ñu ne. Ah, waaw waaw dugal waa ji la ñu jublu. ñu bëri ñu bëri ku mel ne yaa xam bay loolu la jàpp. nañ ko te te te xam nga El Hadj Kassé. Mhm. nekkul TV tv rek la def interview euh, kii démb. Mhm. maa ngi koy déglu tamit benn rajo bu tudd ah, euh, euh, waaw. muy muy muy muy muy expliqué foofu. Mhm. mais wax na fa wax yoo xamante ni tamit dama jàpp na Sénégalais yu bari dégguñu ko mais ay njombee neen la. parce que yow ñoo xamante ni dañoo nekk. di dem ci dialogue pour hmm. waxtaan xalaat ne dañuy war a trouver consensus parce que tamit problème yi ñu fi wax nii yëpp li tax mu am hmm. mooy manque de confiance bu exister entre les acteurs politiques hmm. moom mu ñëw mu ne coow pétrole bi de léegi mu seey ndax dialogue bi dina ko seeyal donc mais ñooñu euh, ñi nga xamante ni ñu ngi ci dialogue bi dañuy jàpp ne xëy na peut-être Macky Sall gisoon na lii muy ñëw da leen a téye ci dialogue bi juste rek pour ñu bañ a génn si mbedd mi di kaas justement Modou Fall sànq ba léegi yaa ngi insister sur la nécessité euh, bi ñu war a bi ñu war a def euh, ci dialogue bi maanaam waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne moo jur ci parrainage bi ak yooyu soo déggee ku nekk au cœur du système quand même comme El Hadj mu ne coowal pétrole du yàgg am na sax ñu ne Coupe d'Afrique bi commencé suba su commencé ñu fàtte pétrole bi eh, mu ne ndax dialogue bi dina ko dina ko dina ko yóbbaale est-ce que du tey xel quand waaw man de li ma jàpp ci pétrole bi du ma ci sori parce que am na lu ma maîtriser wul. Mhm. mais tant que leerul dana continuer di nekk débat ci réew mi. mënul ñàkk déjà loolu moom mooy sama sama premier kaddu tant que leerul. Mhm. yoon wax ci toujours dana continuer di nekk débat ci réew mi. parce que toujours élément yu nouveau day ñëw parce que mm. la dernière fois fii laa la seetaan ci plateau bi diine ak jamono mm. nga invité expert ay expert am ku ni ci mm-hmm. gis nga ci quatre-vingt-dix pour cent wu Timis corporé euh, Petrotip bi mu ko transféré Timis mm-hmm. Timis jël soixante pour cent jox ko Cosmos Énergie mu dese ko trente pour cent daf koo jox BP du loolu la fi wax wala waxu ko fi mm-hmm. d'accord ga mais loolu démentir nañ ko wax jooju bi nga xëyee la lendemain est-ce que démentiruñ ko mhm. parce que nee euh, timis euh, mooy moom Frank Timis vingt cinq pour cent yi la joxe woon mais cinq pour cent yi am na keneen ku mu koy jox koo xamante ni dévoilé wuñ ko mhm. kon xam nga affaire bi kan mooy wax li nekk ak kan moo waxul li nekk xamuñu mhm. parce que li ñuy wax dañuy dem ba ci biir ñu rectifié waat ko waxaat leneen kon kenn waxu mosu fi wax vingt cinq pour cent kenn mosu fi wax cinq pour cent cela veut dire que franchement débat la boo xamante leeral ko moo gën leeral ko moo gën parce que li tax ma ne leeral ko moo gën gis nga képp ku naafequl booy wax yan accord gisoo taxi yi ah taxi yi hmm. les clauses accord bi am entre euh, Petrotim ak Timis Corporation hmm. nga xam ko bañ mën koo transférer quatre vingt pour cent accord bi am entre Timis Corporation ak Cosmos Energy hmm. ba mën koo jox soixante pour cent accord bi am entre Timis Corporation ak bépp ba mu mën koo jox vingt cinq xaw ma dese cinq après mu joxaat cinq yi keneen mm-hmm. accord bi am entre Cosmos ak BP ba mën a jël BP joxaat ko trente pour cent mm-hmm. clause yooyu képp koo xamante ni jàkkaarloo woog moom mm-hmm. liir ko xool lan mooy redevance yi naka la accord bi tëddee mais ce qui est constant dans tout ça euh, Modou moo di ne Sénégal moom dix pour cent yi mu ci am ba léegi mm. déggaguma lu ko dindi dix pour cent rek waaw parce que Sénégal moom ñëpp nangu nañu dix pour cent la ci am maintenant bu production ñëwee je pense képp ku liir contrat da nga gis évolution yi par rapport ak nombre de baril bi nga xamante ne ni moom <laughs> non non non man man non xam nga euh, non je je suis d' accord ah parce que man li ma li may wax je suis clair bien sûr maîtriser wu ma les tenants et les aboutissants ba dugg jusqu'au fond mhm. mais li ma xam mooy comme mi ngi ci yoon képp koo xamante ne ni am nga ay preuve yu tangible yaag as Babacar yéen a yam ay waxu élection rek mën a intéressé mais acteur politique Sénégal quand même mënoo nekk ci réew mu mel nii ñuy wax lu grave nii te doo ci am un point de vue. j'ai écrit plusieurs contributions ma ñëw kii du mën a démentir. moi j'avais écrit sur AZ Petroleum. Mhm. c'est AZ Petroleum moom lañ joxoon lu bloc de Diourbel. les écrits sont sur internet. pétrole li ma ci wax bari na mais dama ni cas bi nii. au moins information mais bloc de Diourbel wax naa ci. Mhm. les écrits sont sur internet AZ Petroleum. kon kon am ngeen pétrole quelque ko nanguwaatoon ci ñun am nañ pétrole. <laughs> Mhm. waaw moi je pense que li ñu war a leeral déjà rek mooy que il faut que ñu am discernement par rapport ak li xew ci réew mi mhm. ndax scandale bu toll nii mosu fay am waaye nag il faut que ñun aussi mhm. ñu ànd ceeg suñu xel ba am ci discernement je pense que lii dina leer ndax mënut a bañ a leer fokk mu leer moo tax dugg ci contrat ya kurtu kurtu mën naa ñàkk aujourd'hui je sais que ce qu'on lii nii Sénégal yi suba rek dañuy wàccaat ci suuf pour yëngatuwaat donc dina leen mais li nga xam ne sénégalais yi nga xam ne lambda moom la ñu xalaat nii ña nga xam ne dañoo nekk ca dialogue ba mhm. ñoom dañoo dëddu mbir yi les euh, dañu dëddu vraiment euh, li nga xam bari nañu leen koy reprocher mais loolu amul ndax na sénégalais yi xam ni fee ñu mhm. toog na le mhm. ñun le front national ña nga fa man en tant que réew mi maa nga fa mais Pastef ma nga fa toog. waaw na ko Sénégal yi xam. ak aljuma c'est mhm. parce que tamit il faut que ñu xam ko parce que dañoo xam ne ñu ngi ci suñu wet ci dialogue euh, euh, ci dialogue politique bi. ndaxte dañoo xam ni la non na ko fii nga toog la toog euh, mooy le chargé des élections de Pastef ne ñoom bokkuñu ci dialogue national boobule mais toutes les questions liées au processus électoral ni ñu ko doon defee bi ko ministre de l'intérieur di ndax dañoo xam ni la démocratie électorale mhm. est la base de toutes les autres te quel que soit alpha wiiri wiiri daari daari dañuy dem ci loolu mhm. waaye ba tey tamit ba tey jii sax ñu nga ci duma ci dugg euh, ni ñuy gérer mbir mi ci biti mhm. am na nu muy demee mën naa yàq dialogue bi waxuma dialogue boo ko defar day yàq dialogue bi parce que mënuñoo nangu tey jii mhm, ay nit génn di manifester seeni droit ñu nekk fële ca Ngor jaaraama di liggéey ñu jël seen i ay kanoog seen i kurtu kurtu bi toll di maate di maate ni ñëg di ñóor c'est-à-dire que nañu bàyyi nit ñi. ñu est-ce que cela veut dire que ni bu loolu kon ne dialogue bi mën ngeen. jéggeen non non climat bi mënu nekk. nekk actuellement am vraiment nekk des républicains n'est-ce di liggéey li nga xam ni war naa mën a jëmee réew mi kanam kañ ko séqal moom nekk ci leneen ci beneen jeu. moo tax vraiment de ce point de vue là nañu ko ñaar. Mhm. dialogue bi mën naa bañ a muur lële. mais du tee mais lii mën naa bañ a yàq bi parce que c'est différent mais en tout cas li mu mën a xam daal mooy. Mhm. mbirum pétrole bii. ak li nga xam ni am na ci biir gouvernement bi ñu commencé indi ay problème mhm. dëkk bi xeeñ na pétrole ba nga xam ne dañoo waroon interdire fi mu nekk almet wala briquet. <laughs> daaw bi jeex na complètement euh, euh, merci Moustapha <laughs> problème bu pétrole bi ni mu ko waxee rek am na solo lool ci réew mi te nag naa maa ci bëgg a jaaxle parce que boo ko xoolee li ko dalee ci timis ba bëggee gi bépp étape yu baree bare bari. timis ba gee jëm fajar gay waaw am na ñoo xam ne ñii lii ñu wax bu dee dëgg c'est dëgg la udu dëgg nag dañoo war a xam ñu sénégalais li xew procureur nee na jël na dossier bi waaye damay ñaan yàlla mu leeral ko waaw mais su procureur ne jël na dossier ba pare ne ku bëgg a xam demal dig nga wax fi mu ñëw euh, dama ne de même wegg de dama ne procureur dugg na ci nous souhaitons que la vérité éclate que ñu xam procureur na ko leeral nañ nañ nañ ñu xam su leeree rek jàmmaam xamul tax mhm. bu leeree nag la may ñaan je ne veux pas débat impersonnel ku ci war ta def loo war ta def ñu sanctionné la ku ci def loo war a def ñu sant la parce que pétrole bii xéwal la ci ñun nañ waxante dëgg pétrole nag am na ñaari par foofu laay daanelee hmm. pétrole am na njëriñ waaye am na it ay am na léegi nag ñun nañ ñaan yàlla ak xam dëgg ji ba mën moytu ay ji mën a am ci pétrole ba njëriñ la mën yow law ñëw ci dëkk bi jërë nga jëf wax jooju ñu wax si si pétrole bi sax moom ci la ñuy tëjee di wax rek ramatulaay que ne lu ñuy soxla rek ci yeneen waxtaan yu ñëw parce que comme ni ko maam Birame waxee sànq waxtaane petrole ci réew mi ak nii pétrole xeeñe ci réew mi mënul ñàkk faaw dinañ ci ñëw ñëwaat ci ñëwaat ci xam naa ne ñu jote dikk comme ni ko Sa Ndiogou di defee pour mën a wax li nga xam ne moom la ci xam mais en tout cas ñu waxtaane ko fii ma lay gërëm baax maam Biram euh, Wàcc di fàttale moom mooy administrateur bu site bii di walfnet.com mm-hmm. Modou Fall jiite dëgg moo wóor maa ngi lay gërëm baax di gërëm As Babacar Gueye chargé des élections bu parti réew mi di gërëm bu baax Youssou Daaw bu Gradec mbokk yéen tamit euh, mbégte mu bari la ñuy am di ànd ak yéen alxames bu nekk ñu leen di gërëm bu baax Ramatoulaye kaddu ñu joxante dig daj incha allah